solution ñoo leen di may seen émission Taku Show awaan mbégte ñëw ci li nga xam ne rek moo di seen émission bu mag bi lee mu di Taku Show muy nuyu mbokk téléspectateurs yi nga xam ne rek ñu ngi bàyyi xel ci Walfadjri leeru jamono la voix des sans voix ci solution TV ci studio El Hadji Sidy Lamine Niass Niass Koumba Abdallah ñu daal di sóobu ci liggéey bi daal di fas yéene ànd ak ki nga xam ne rek moom moo di Omar Boun Khatab Gueye ci lu ay di ñàmbat mu invité ki nga xam ne rek moom moo di Djidjack Faye euh, président du mouvement pour la révolution citoyenne et des leaders Diomaye 2024 bu ñu fa jógee daal di ànd ak sponsor leader actualité du jour ma jigéen Diop victime di net son yi bu bu baaxee ñu dem Modou. Omar nuyu naa la. di la baax suka di la nuyu di nuyu Boubacar di ko ziar baax eh, di ñaanal ñëpp jàmm di jaar El Hadj Ndiogou saa taalibe sëñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad Mbacke di ko nuyu baax di nuyu maa jigéen madame Dieng ñu ngi koy jaajëfal bu baax waa Thiès yëpp di nuyu Jijak Faye mhm. euh, jiite ah? di ko ziar bu baax euh, mouvement bi aussi nu mu tudd mouvement pour la révolution citoyenne. pour la révolution citoyenne ah. membre de la di ko jaajafal bu baax di ko nuyu tey jii mu doon euh, sunu gan. ci kanam incha allah ñu fa yéene waxtaan ak euh, moom ci ponk yi bari parce que moom lu tax mu intéressant sànq maa ngi koy fàttali peut-être foogul ni sax xam naa ko mais moom bokk na ci ñi njëkk dugg Diomaye 2024. waaw après dinañ ci gën a waxtaan ak lan moo ko ci dugaloon nag yooyu euh, di nuyu Cheikh Samba Ka géej Géejawaay sëñ si di tey bu ñas di nuyu ñëpp di leen ziar bu baax a baax di nuyu Assane Bessa rek ci invité yi di ko ziar bu baax di nuyu waaris yi yëpp ci kanam incha allah ñu soobu ci waxtaan wi d'accord Omar Boun Khatab Gueye Mage nuyu naa la. Euh, fay euh, sukka di la ziar bu baax baax te lay ñaanal nag jàmm ju sax dàkk di ko ñaanal ñu fi toog ñëpp. Mhm. di fay Omar nuyoo.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 ajaratu si kanam tuuti nag daañu ànd ak yéen ci cérémonie bi sénégalais yëpp di xaar ñenn ñi naan affaire yaa ngi bëgg a yàgg suba euh, fële ca jam ñaajo am na lu ci bees ak euh, ñiy xaarandi premier ministre bi euh, comme ni ko bi am su Souleye Diop waxee bu Pastef nee na d'ici mercredi incha allah dina ñu xam kan la war a doon ak la fas yéene xew fële suba ca Sidaat incha allah jam ñaajo mm, d'accord ma nuyu ko ko nga xam ne rek moom moo di Alaaji Sanjogu Meng Meng Mbour góoru ñi daan caari xalif général kulu jongama di soppee sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad Mbacké ibnu Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul alaaji nuyu nañ la méng sugaa ñu ngi lay fay di am mbégte ak kontaante ci yow dem ba Touba nduy xalif général des Mourides sëñ Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi tànd ak wér waaye ñu ngi nuyu di ziar sunu sëriñ sunu xarit sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad Mbacké ñu koy ñaanal Mbàkke mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ko ziar wér nuyu bu baax sëriñ xaadim ne ca kër ga di nuyu njaboot ko yëpp di leen ñaanal jàmm nuy nañ sëñ Abdou Karim Mbacke borom Makarimul Axlaaq nuyu kilifa diine yeewoo ci biir réew mi ñu ngi nuyu maman Diayna Ba Fall kooku sunu maman la waaye di nuyu monsieur Lo kooku sunu tonton la ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal jàmm di nuyu Umar bun Xataab am ci moom mbégte ak kontaante di nuyu bu baax Jijak Fay ñu ngi lay nuyu di la ziar la ñaanal jàmm di nuyu bu baax Madjigéen Diop macha allah ma nga xamante ne bii moom la ñaa gën koo xam ci turu Dressé Diop macha allah xam nga moom koor gi. Eh, maire bulet di jaay ci ah, suuf foofu bu ndog jotee rek day dem jënd kaasu café fukki dërëmu mburu ak fukki dërëmu bulet <laughs> te gan gu ko seet si loolu la lay jëndal fukki dërëm mburu fukki dërëm bulet moom lay dressé moo tax ñu gëm moo tax seen waa koñ tuddee moo tuddee ko dressé Diop. macha allah dressé Diop. man su su gaa yaa ngi ko macha allah. <laughs> jërëjëf Mbengue loolu bu mu la naqari ndax dafa ay temps benn carotte benn navet benn carotte su ma ñëwee daal di ko supp ah fii barki démb fii la ne nee na tamit lundi ba vendredi da ngay wàcc ci bu leer bi ngay jënde yëgoo wax na ko de <laughs> jërëjëf Mbengue ñu dem régie jëli suñu jëli actualité du jour Omar sa invité nga Djidiack borom Fatick Djidiack euh, Faye ah balaa ñu nuyoo rek euh, chrétien yëpp ñu leen di euh, ñaanal une bonne fedd de waa Kër Massar yi xam ñun koñ bi ñu dëkk ñii chrétien la ñii chrétien yi dañ fa bari. na nga lax ah, man de bari la naa ci. di nuyu sama benn boy Owen Ndiaye Ousseynou Ndiaye. waaw moom ngalax bu neex la muy indi. di nuyu wàllu ah, bu baax Kër Masar moom bari na fa. Hmm. di nuyu yëpp saa yi saa yi ma dogoo ngalax laay naan. ah man ak yow <laughs> man tamit. ah macha <laughs> koñ ay chrétien. Euh, ci ngalax laay nuur ba <laughs> yàlla jàmm. suñu koñ noonu la mel quoi. Ah. Euh, euh, sëñ bi Djidiack ñu ngi lay nuyu bu baax. nga bokk coalition Diomaye Président. ñu bàyyi la nga nuyoo ñu dugg ci waxtaan bi. jërëjëf Omar kon ñu ngi nuyu ñu fi nekk ci plateau bi. bàyyiñ kenn surtout du nuyu ñi seetaan Walfadjri di nuyu mbokk Sénégal ñëpp surtout waa Fatick nag ak euh, ñi bokk conférence leader Diomaye président di euh, ndokkeel suñu mbokk chrétiens yi ci fête bi nga xam ne ñu ngi ci muy feetu Pâques mm-hmm. euh, saanee na moom ndo maanaam ngalax lay ndogoo c'est le dialogue islamo-chrétien mm-hmm. donc à chaque fête Sénégal mooy wane ne ñun moom fi dialogue islamo-chrétien moo fi am di sant suñu borom bu baax a baax. Mhm. di la ziar bu baax nag euh, tey jii di la gërëm sànq maa ngi la koy wax euh, yow euh, bi jomaay di nekk ci kaso bi ñu lancé parrainage yi nga defoon déclaration ma dégg ko man sax xaw ma la woon pour être honnête ma dégg Jijak Faye Fatick jiite ARD ah. waaw maay directeur ARD. bu Fatick bu Fatick. ay ñaari affaire yu bokkul la nag directeur ARD mooy sama profession. Mhm. donc foofu dama fay liggéey. comme tout Sénégalais comme tout fonctionnaire mouvement bi nag sama mouvement politique bu ma créé woon jëloon sama fiche ñëpp pour nekk candidat mais joomaay bi ma wooyee te ma gis ni suñu programme yi suñu ambition pour Sénégal am na lu bëri lu ci lu ci lu ci ànd ci laa déclaré en novembre ne man joomaay lay jàppale li ko waraloon aussi feeñ na ci élection yi. mais lan moo la wóoroon ci nii dina nekk candidat boobu parrainage la doon ut. parrainage la doon wut. boobu candidature wóorul. wóorul balaa mi nekk président aussi tam wóorul woon affaire mbokkoo la woon wala qu'est-ce passe. lu simple la. Euh, démocratie mooy li mbooloo mi bëgg bi Diomaye commencé parrainage ni Sénégalais demoon di cotiser di fay pour parrainer Diomaye da ngay gis ku ñëw pare parrainer bu pare joxe xaalis mooy loolu laa jàpp ne kon Sénégal yi candidature bi lu leen lu leen saf la. moo tax ma ne kon loolu amul amul amul amul hésité naa dem jàppale ki nga xamante ne te loolu laa xoon ci déclaration man ne parrainage bi yegg na fi lool waaye ni ma gisee ñu parrainé parrainé laa fi 111 am na am na lu ci nekk. may sant yàlla tey ndax euh, dès le premier tour c'est la première fois un candidat de l'opposition arrive premier au premier tour dal di remporter élection yi. kon démocratie moom da ngay xool Sénégal tey li askan wi bëgg daal pour man mooy jubluwaay bi moo ci moo ma ci dugal ginnaaw bu mujj ayib nga mouvement MRC gëm ci wàllu orientation politique publique dafa méngoo ak bu baax ci ñoom lu ñuy wooyee projet bi. Mm-hmm. mais balaa may dégg ci projet bi yow. Mm-hmm. nekkoon nga PDS. benn jamono nga jóge fa euh, nekk ci sa liggéey créer sa mouvement. Mm-hmm. Euh, nekk Fatick aussi euh, est-ce que mënu woon gën a xaar nga jàppale le président de la République Macky Sall que Diomaye quoi. surtout que nga dëkk Fatick. waaw c'est nag relativement am na histoire politique bu xaw PDS. maa ngi dugg PDS en 1993 j'ai reçu Ablaye Wade dans ma chambre d'étudiant en deuxième année de mathématiques Ablaye Wade suñu pavillon mu ngi yoon Medina ñu tuddee ko pavillon Ablaye Wade euh, nekk ci 93 xamoon nga ba 2000 mu nekkoon ay année charnière ci ci ci politique au Sénégal bokk naa ci jeunesse bi yóbbu Ablaye Wade au pouvoir en l'an 2000 ñoo créé alternance bi alternance ñëwee ñu continuer nekk ci waaye pour revenir à ta question Macky Sall 2005 presque ñaar fukki at sequñu politique. ndax amoon naa ay ndombo tànk ci PDS maa jiite woon sama commune Ndiop boobu commune rurale la woon Fatick région Fatick maa jiite woon tous les jeunesses libérales ci région bi maa nekkoon numéro 2 UJTL Aliou Sow boobu moo nekk numéro 1 UJTL ma nekk numéro de nekk aussi cabinet Macky Sall en tant que premier ministre ñu dem ba ci biir nag mu am problème ci jeunesse bi ñu daal di euh, génne Aliou Sow ne man maay toogandi maanaam provisoirement pour réorganiser ñoo bi ñu xëyee keroog une des la une des journaux tiital Macky Sall parce que daa amoon ñu jàpp ne Macky xëy na moom mooy buux pour ma jël place Aliou Sow te fekk na moom nee na ma carrément ci seen xëccoo bi Macky Sall wax na ma lii ci biiroom en tant que premier ministre Aliou Sow sama xarit la moom lay jàppale contre man mi bokk ak moom région Fatick nekk ci cabinet am donc noonu la problème bi bare après ñu tas UJTL génnee ma UJTL mu dàq ma primature mais nag man je suis pas un politicien professionnel man dama am samay ci laa dellu nag naa xam ne vingt ans yëpp. sama liggéey laa gënoon na fonk en tant que ingénieur des travaux agricoles en tant que aménagiste en tant qu'expert de la décentralisation développement rural changement climatique presque 2008 ba 2024 gi lool laa gën a. kon Macky Sall laa jàppalewul woon quoi moo tax nga mer ne doo ko jàppale. soxla woon sax mu jàppale ma man ndax grade yi ma amoon ci PDS bi ma koy am Macky Sall fegewu ko man 93 laa dugg PDS Macky Sall laa ko doog a xam donc grade yi ma amoon c'est parce que pas ci ak appui mais en tout cas newoon na ma daal Aliou Sow mooy xaritam moom lay jàppale euh, mais yëmul foofu ñu xeex ma lool ci parti bi ca Fatick mais aussi au niveau national tax doon ma bàyyi PDS nag ndax Abdoulaye moom suñu bàyyi la dañ ko dañ koo gëm lool waaye man ci walatu politique moom dañ maa bloqué woon waaye nag ma topp sama liggéey topp samay njànk ba 2015 ma gagné poste bi nga xam ne mooy directeur ARD poste boo xam ne compétition ma la koy jox ndax bu doon ñu ne moom dañ koy bañ lañ def niveau national ma gagné poste bi poste bi aussi du politique waroo ci nekk di def politique man aussi maa ngi yàlla ndax tey ku nekk région Fatick nekk maire xam nga ne liggéey bu mucc ayib laa def ci région bi. non non mais da nga ne poste bi kenn du ci nekk di di def politique. oui mais yow yaa ngi politique. déggoo li ma la wax 2015 laa jël poste bi defuma politique mais damaa jàppoon ne 2024 damay bokk ci élection yi juillet laa créé sans mouvement. pour euh, bokk ci élection présidentielle démissionné ci poste bi. poste bi lu tax ma ciy démissionné. non non parce que da nga ne poste bi ARD boo ci nekk waroo politique. non waruñu waaw ci ah. bi waxul politique daa wax ne. boo nekkee directeur ARD mënoo nekk conseil municipal fi nga dëkk. mënoo nekk conseil départemental mënoo nekk maire mënoo nekk maire ah. bi may bi may gagné poste bi boobu nekkoon naa conseil départemental nekkoon naa conseil municipal mais damaa démissionné waaye bokkul ak far ak nit maanaam milité ci parti jël carte parti bokkul ak par exemple Mhm. boo nekkee minit wala boo nekkee député bu ñu la tabee ministre da ngay bàyyi man aussi tey bu ma demoon ba nekk maire mënoon naa bien sûr déposer sama candidature ba nekk maire su ma nekkee maire nag damay choisir fekk nekkuñu maire nag euh, en tant que citoyen 2024 damaa jàppoon yéene bopp bu baax a baax ci élection présidentielle 2024 surtout nag bu ñu waxee continuité mhm. ndax Macky Sall moom ak euh, pouvoir am yaakaar naa continuité bu amoon Sénégal xam fu ñu jëm mhm. heureusement Sénégalais yi décidé nañ ne dañoo bëgg a def rupture changement léegi balaa may ñëw si saa euh, tey jii xam na sànq da wax ci parrainage bi mooy critère bi tax. Mm-hmm, mm-hmm. nga gis ni jomaay day dem nga langaamu ci. Mm-hmm. maanaam réalisme la wala opportunisme politique euh, lo lool loolee laaj laaj bi quoi. Euh, réalisme parce que critères yi war na mën a doon leneen quoi lu dul nii moom am na ay parrainage quoi. non wax naa ñaari critère yi. Mm. man opportunisme moom maa ngi maa ngi ci profito tey ku xam sama carrière politique nga xam ne bu ma doon opportuniste. kon nekk naa ministre ci gouvernement Macky Sall loolu leer la ndax ñu bëri dañ ma daan naan yow jikko bu maanaam jikko séeréer sax parce que yow tey Macky Sall xam na lu bu baax am na ci yow estime mais depuis seen problème yow bëggoo bëggoo bàyyi da nga matrique doo bàyyi donc boo ñëwoon dina am na maire yu bëri yu ma abordé woon ne yow il faut nga ñëw jàppale Macky kon yow mere Macky moo tax nga jàppale Diomaye quoi bu ma doon mere Macky Sall kon naroon naa bu yegg man Sénégal laa am Sénégal moom a ñor du politique je pas un politicien li ma mën a wax mooy di benn programme PASTEF man maa jàpp Sénégal yu bëri dañu ko gëm ne serait-ce que benn poñ mooy véritable rupture ci suñu gouvernance damay faral di wax ne muy temps Abdou Diouf muy temps Abdoulaye Wade muy temps Macky Sall bu dee ci programme bu am solo bu mujj ayib ñàkk fi ay experts yu am yu mon yu xarañ lañu am ministère boo dem gars yi dañoo maîtriser seen secteur mais problème gouvernance lañu am gouvernance boobu nag mooy rupture bi ñuy wax tey yaakaar naa gouvernance la ñuy njëkk mooy li jomaay naan jub ak jubal ak jubal mm. bu ñu ko defee rek mm. euh, am nañu ressources humaines maanaam am nañu experts yoo xam ne mën nañu liggéey Sénégal mm. waaye programme lu mu baax baax mm-hmm. te ñu du dem fen damay faral di wax ne gis nga Prodac bii di yenn coow li Prodac bu dee ci conception bu Mame Mbaye Niang waaw pro Prodac bu dee ci man en tant que expert développement rural Prodac bu dee développé rek euh, monde rural bi ak agriculture amul programme bu ko dàq mais gis nga nu mu mujjee naax saay juba di rek. juba di rek. macha allah <laughs> waaw Grégoire ban de bëggoon naa ñu ñëw ci euh, jomaay bi ngay tànn jomaay. Mhm. boobu éliminé gu ñu Sonko tam programme bi benn programme la da nga amoon loo xamoon ci kanam xam ni jomaay mii mooy nekk candidat bi sonk du dem wala lan la ba tax yow nga wutali directement mouvement euh, jomaay bi. Sonko mooy Diomaye Diomaye mooy Sonko novembre la ma Bassirou nekk prison yónne ci man ne damaa bëggoon nga bàyyi sa naa ñu ànd te programme bu Diomaye mooy programme Sonko te man comme beaucoup de Sénégalais dañoo wax gis ne mooy li ñuy xaar tey ci ñi ñuy jiite jamono boobu xëy na kenn éliminul Sonko officiellement ndax boobu mu ngi doon def ay recours waaye Sonko nag moo joxoñoon ne ñii ak ñi nañ jël ay fiche kon jàpp naa ne rek Bassirou bu jëlee fiche ci ndigalu Sonko la wala boog lu lu Sonko d'accord la li ma jàpp aussi mooy que ne programme bi comme li ñu ko projet bi Sonko projet euh, porté ko wala Diomaye porté ko pour man c'est la même mais ci ñi mu joxañoon daal te fekk moom moo ma ci interpellé ma dem xam ne bu ma demee rek dem naa ci Sonko dem naa ci ñi ci des mm-hmm. euh, mais encore une fois li ko la preuve bi ñu ne nañu def parrainage mm-hmm. Sénégal yi seen adhésion ci projet bi moo taxoon parrainage bi yombe noonu ci joomaay ndax da ngay gis ku ñëw parrainé ba pare génne xaalis ne maa ngi maa ngi contribuer. léegi jaareel bi euh, Fatick ku xool Fatick xam ni fiefu euh, président Macky Sall la am na tamit ay ministres yoo xam ne ña nga fa ay ñoom in Cheikh nga fa ay ñoom Matar Ba defe naa ay Thérèse Faye ñoo ñëpp ña nga Fatick yow. Fatick googu nga nar a fa nekk pour kii est-ce que sa résultat yi Fatick yow noo ko jàngatee Fatick Fatick moom naa man bi résultat yi di wadd Fatick euh, safoon na de moom moom ci Amadou Ba moom wulee na fa ñaay. Euh, gis nga ñooñu nga lim ñëpp. Mm-hmm. wërtee Macky Sall. Mm-hmm. maa leen jiitu ci Macky Sall bi may ànd ak Macky Sall muy métti. waaw boobu ñoo ñëpp gis kenn ñoom. xamul politique am na ñoo xam sax sama militant la sama ginnaaw lañ doon topp ci ñi nga lim noonu tey du ñu nekk ay mm-hmm. sama ginnaaw lañ doon topp. ñan. Euh, Thérèse nekkoon bi may jiitee xele yi xele libéré yi <laughs> Thérèse était derrière moi très loin d'ailleurs hmm. keroog bi ma amee problème ak Macky mu dax ma primature dax ma ci UJTL hmm. Thérèse bokkoon na ci ñi ma doon défendre ci rajo yi hmm. keroog ñëw na ba Walf ci bi pour jël parole pour wane ne Macky Sall li mu def jaarul yoon alors Sine nag moom euh, dëgg la fekk Macky Sall moo nekkoon président dañ ko adopté bu baax a baax donte nag nee na moom dafa gudde rek fanaan siin waaye siin nag dañ koo dañ koo adopté jox ko lu bare bëri ndax damaa jàpp ne Macky Sall bu fekkoon ne Fuuta la milité woon yaakaar ma ni ko siin jàppale bu mu yëg fii mu yëg foofu hmm. sama xalaat la benn euh, fekk nag dañ ko adopté te mu nekk président la république naka jëkk da doon am élection yu baax a baax comme résultat à Fatick hmm. waaye bi yoon moom maa ngi félicité siin ndax xam nañ ne changement moom la Sénégal yi bëgg ñu topp waa Sénégal. Hmm. li ko waral mooy dernier présidentiel quatre-vingt pour cent la ñu doore foofu bi yoon. Hmm. ñoo jiitale waaye même bu doon Fatick kese sax dañuy def deuxième tour. quarante-huit pour cent la am ñu am quarante et un pour cent pour man loolu c'est une grande victoire. ci si hmm. parti au pouvoir mais aussi ñu adopte kooku nga xamante ne moom jàpp nañ daa guddee rek waaye moom lañ toppoon di ko sanel même bu doon Fatick rek rek dañuy dem deuxième tour te deuxième tour moom boo fa demee en tant que candidat sortant da ngay xam ne yow ñàkk nga waaw donc kon euh, résultat yi ça Fatick bi bi yoon amu fa majorité. amu fa amu fa majorité 48 pour cent la am. waaye. Ah même résultat yi ma doon dégg xanaa kon àll bi la wala ci kii la wala. ban fépp la commune Fatick. waaw département Fatick. <laughs> am na bureau ñu gagné. am na bureau ñu gagné. bala bu ñu gañee écart yi dañu day day xaw a équilibré. 41 48 moom soriwul loolu moom soriwul. soriwul ma jeexal kay man man. bi mu ma jox ak résultat yi ah, mu doon dégg. xoolal 48 am ñu am 48 pour cent. Hmm. donc lu ñun malgré gars yooyu ministre d'état yeeg. ministre yeeg keroog fay élection yi joxe nañu ay moulin à mille joxe nañu xaalis lu ne joxe nañ ko waaye. Euh, changement moo moo. mais zone boobu nu mu mu zone boobu nu mu renversé woo. mais nag am na ñu doon jox ay fausse. ay faux résultats ay ah. faux ah, am na journaliste bu mag journaliste bu mag démb si xabaar ne nag war a yóbbu ci yoon. Ah. mais kooku ay faux résultats la ñu après naa la wax résultat la booy journaliste kii bi ir télé bi résultat yi résultat yi baax mooy non non résultat fuuta yi la doon joxe de waaw fuuta de fuuta de joxut ay foo de en du faux Fatick daal eh. boo jëlee commission départementale de recensement des votes loolu la joxe 48 pour cent 48 pour cent ñu ciy am mbégte mais lan moo indi loolu jug bi gars yi jugaat foofu. li Macky bokkul la wala. Euh, xëy na li mu bokkul la waaye li ma leer mooy. Hmm. Euh, xëy na ñoom mën nañu expliquer loom ñoom li tax gis naa benn ministre bu dëkk Saalum ne way il faut ñu xoolaat toog waxtaan seen biir waaye man. mais man Fatick bon Fatick bon romb naa fa fan yii rek. Mhm. mais Fatick man gisuma wax dëgg fa yàlla euh, développement boo xam ne développé na ko ak président Macky Sall def 12 ans man moo tax dama jàppante sax élection yi. Euh, waa Fatick dinañ bàyyi Macky Sall. ëpp na 12 ans. man man damay faral di wax ne. waaw 24 ans durant. Mhm. leadership politique ku Fatick benn nit moo ko yore. waaw Macky Sall. ndax temps Wade 12 ans yi mhm. Ablaye Wade def. waaw Macky da cee amoon cër bu rëy ci gouvernement bi. mu nekkoon premier ministre bi gën a yàgg ci post bi. Mhm. boo xoolee comparaison n'est par raison waaye ñëpp a jàpp ne Idriss Seck daa jàppaloon waa Thiès bu baax a baax. bi mu toogee. waaw Macky Sall defal loolu Fatick. mais nag yàlla def mu nekk président de la République. te keroog maa ngi fàttali bi ñoom Diomaye ñëwee Fatick ma ne fii ma taxaw la laa taxawoon en 2000 ne Fatick fatigué. Euh, ñu ñu am chance mu nekk am ay ndomu tànk yu am solo ci nguuruwaat mais mieux mu nekk président de la République mm-hmm. te ba Fatick tey pauvreté maanaam boo jëlee téeméeri nit mm-hmm. juróom-ñaar fukk yi ci ndool nekk. Mm-hmm. te ñeent fukk yi sax ndool boo xam ne daa sax dàq. li tubaab di wax pauvreté chronique. looloo nekk Fatick. Euh, may utiliser benn baat bu. Oustaz Aliou Sall di wax ndax pauvreté monétaire mooy bu booy naan dëkk bi daa dëgër mooy dara nekku ci poche yi te koom-koom nag wala développement foofu lay foofu lañ ko xamee bu fekkee boo lamee sa poche am dara di mën a lekk di nga mën a jàng di nga mën a faju mm-hmm. Fatick loolu moo fa amul amul usine amul dara xale yi Jakarta wala boog gaal yi looloo am Fatick mm-hmm. yow demoon nga sax ba dem jëli fiche par parrainage yi euh, yow xanaa amoo woon objectif fu nekk président parce que da nga ne bala jumaay woowee rek nga teg say kaaka daal di dem rejoindre leen. ak amoon kan euh, ambition te yaakaaroon naa sax te jiwuma man pour man président bi ñëw moom fay lay sant. Ah, waaw loolu laa mos a yaakaar. waaw ah, fay la sax. Euh, te man mii sama bopp laa ko doon foogee. waaw waaw. waaw waaw foo jaar ba teg ba defe ne yow la war a foo jaar ba defe ne yow yow kii ngi mi ngi nii mi ngi lay mi ngi lay soog a xam man maa ngi lay soog a xam ah non non sama tur moom kanam gi visage bi waaw mën nga ko ñàkk a xam waaye ji fay parce que d'abord politique ak développement waaw donc boo tapee. di nga gis ay développement bi laa waaw développement waaw eh, non man man nag xam nga discrétion rek. te eh, mais politicien nan lay discréter. non man nekkuma politicien professionnel man man non naroon liggéey bi mu yoroon bi ma nekkee ambition nag président. laa feeñ am na beneen mu wax léegi ne seek nag. xam nañu bu baax waaye nii nga def moo gën. parce que am na loo xam ne boo ko doon def am na ñu fi nekkoon. ñoom ay orlaal wàll lañ. xëy na sax man <laughs> sama poste dama amoon garantie sama <laughs> amoon garantie ndax euh, kenn na ma waaye li ma leer mooy. Mhm. buñ nga ñëwoon sax xam naa nañ ma jéem a faagagal waaye soxna si. non nekkul daw cest à man bi ma defee sans parrainage dama bi ma sampee sans mouvement def naa tournée nationale mhm. commencé am samay parrainage macha allah fii ba fii ba Sédhiou fii ba Kolda fii ba Ziguinchor mhm. euh, Sine Saloum dem ba Bawol uh-huh. mais keroog bi may samp sans mouvement damaa wax Sénégal il faut quand même ñu bàyyi la culture du jeu mhm. moo waral ñu dem ba ay deux cent quatre vingt mooy man quoi mën a a mën a mën man am naa ambition te am naa xalaat aussi sama programme partagé naa ko lu lu wóor lu dëgër la. yow sa programme loo waajal. sam programme benn d'abord dama socle de base. Mhm. mooy l'éducation la formation et la recherche scientifique ndax mooy tax ñu am ressources humaines de qualité. su ma ca jógee agriculture ak souveraineté alimentaire foo nga lekk mhm. mais balaa loolu aussi wér-gu-yaram loolu nag li koy ŋànk. Mm-hmm. mooy bonne gouvernance bi ñu wax sànq ndax loolu yëpp programme yi bu ñu baaxee te defoo bonne gouvernance juboo jubal mm-hmm. dara du baax am na nag ay secteur accessoire comme on dit secteur d'appui mm-hmm. environnement ak changement climatique tey kenn mënu kaa bay ginnaaw surtout am nañ gaz ak pétrole. léegi tontu di question kii alors très bien donc programme bi naa am chance xuus si parce que de toute façon. maanaam gis naa samp bu baax a baax ci projet euh, président Bassirou Diomaye Faye mais euh, justement bi ma xamee ne euh, maanaam li ñu proposé waa projet. Pastef ak sama programme lu bari da cee da cee ànd benn secondo xam sa euh, méritu moroom xañul dara ci sa n'est-ce pas 111 bi bi ma gisee Sénégal yëpp topp ci te joomaay aussi talal ma loxo ma ne su ma ñëwee damay gën a dooleel lool rek te yaakaar naa je suis très fier aujourd'hui am na sama mbokk waa politique responsable yu mag dama yeewu da ngay xaru ndax kii nga kii ngay jàppale kii nga déclaré moom ngay jàppale du bokk ndax xëy na sax du génn kaso. Mm. ma ne ko d'accord waaye li ma ci intéressé mooy li mu teg ci table pour Sénégal moo ma intéressé. Mm. parce que am solo parce que programme bu ñu ne ayib te aussi méngoon ak jubluwaayu Sénégal yi mm. ndax nag nekkuñ ci dictature démocratie lañ nekk Sénégal yi lu ñu bëgg boo bëggee jiite Sénégal da ngay bëgg ko ñoom jubluwaay donc bëgg nañ projet bi lu mu wax am na solo ci wàllu gouvernance ma ne mais Diomaye nañ. ànd ci yow xam nga Diomaye bu yàgg. waaw euh, yow bu yàgg loolu lépp jiitu na lii ah. déedéet ah. programme bi muy wax sax bien avant doon nañ ko tudd. le programme été accessible à tout le monde. mais xam nga ko bu yàgg mais fi may waxee. xam nga non xam noo non xam nga kay wax la xamante ne sama xam ne Diomaye. Hmm. yàggul de deux mille vingt deux la gis. deux mille vingt deux deux hmm. ñu paree seen élection hmm. ñu amoon ci résultat yu baax. ñu am seen euh, cadre yoo xam ne dañu doon wër Sénégal ay experts ci wàllu développement local. pour ñu former seen élus yi. Mhm. ñu contacté ma man leen avec plaisir ñu dem mairie Dakar ma ñëw ci sama domaine wala gouvernance locale mhm. ak maîtrise d'ouvrage ma ñëw def sama contribution ci former les élus yu nga xam ne dañoo bokkoon yeewu askan wi jamono boobu. bi ma defee sama formation ba pare ma ñibbi moom xëy na euh, remarqué na ma il paraît bi mu deux mois après ñu amal beneen formation bu am Ziguinchor ñu ne gars yi woo leen ma jàpp pour mu bokk ci mission bi gars yi jotuñu waaye dama doon jot ay xibaar ne diw dem mu lay laaj ma koy waaj seeti far sax ñu téye ko après nag ma jël sama autorisation dem seeti ko ñu waxtaan lu bëree bëri mu doon nit ku yaru. kon yéen liggéey moo leen boole. liggéey moo ñu boole liggéey moo tax liggéey ak boog objectif Sénégal moo ñu boole. mais tey jii. yow da nekk ci domaine boo xam ne man damay dégg booy déglu Diomaye Diomaye comme yow la. booy déglu doo dégg ab politicien bi wax quoi. waaw mooy si wàllu développement. yow yaa ngi wax sànq ci Prodac bi wax ci agriculture wax ci wàllu terroir yi maanaam boo boo génnee Dakar comme fi ngeen nekkee zone yooyu dafa pauvre pauvre goo xam ne te yow ci côté boobu ngay liggéey pour développer les terroirs tey jii ci programme Diomaye lan nga ci ci côté boobu gis ni mën na suqali Sénégal à la base. Euh, macha allah encore programme yëpp a ci yem à part avant ci secteur bi. question gouvernance c'est important. Ah, am na benn député jubal bi ndégg dañoo am expert yu mel ni man yu ma gën a xereñ sax ñu ngi Sénégal mais dañu leen tënk bu mënuñu liggéey ndax mal gouvernance am na fi beneen député bu bokkoon benn bokk yaakaar ne à l'Assemblée muy wax nu ñu saax saaxee waru jiw bu ñuy joxee ci Sénégal. ndax du jaar yoon Cissé Lo mm-hmm. donc te mbéy abré mën na développer te sa mbéy amul développement programme mu jomaay bi mbéy càmm ak napp macha allah mm-hmm. benn jour ñu ngi waxtaan ma ne ko am na solo loo xamante ne. bu fekkee da ngeen a bëgg a d'abord euh, def benn gouvernement bu gën a cohérent ndax Macky Sall bu muy ñëw daa ne woon gouvernement bi du passé vingt cinq ministre mm-hmm. mais bi ma liiree programme ma leen day passé vingt cinq ministres parce que duñ ko tënge tëggee la tey Sénégal mbéy càmm ak napp ci jamono bu yàgg ba mm-hmm. presque moo doon moom la ñu tuddee ministère du développement rural c'est le même secteur mm-hmm. tubaab mooy wax agriculture avec grand A. yooyu yëpp mën nañ ànd quoi. mooy yëpp nañ ànd donc nga réduire say ministère donc réduire le train de vie de l' état créer ay direction yu am doole ñu mën a liggéey réew loolu c' toujours ci wàllu gouvernance ci wàllu organisation gouvernance la. Mm-hmm. mais li ca tam nag mooy en tout cas mbéy ak càmm mooy tax tey ñu mën a lekk bu suuf maanaam tey xiif jóge fii ñu mba wañ bu baax a baax lu ñu tuddee importation maanaam lu ñu jéggaane mu ñuy coûter lu cher mais surtout aussi ñu mën a créer ab xëy. muy xale bi muy jigéen ji ku nekk parce que boo neexee sax nekkul ni salaire mais revenu laay wax revenu nga yëngi ci loo xam ne bu weer dee di am loo dugg sa poche moo gën a am solo sax ab salaire. mais pour développer collectivité territoriale yi yow loolu mooy sa domaine da nga leen di jàppale moo tax. yéen doo leen politique. Mhm. pour xam ne mënoo nekk maire wala kii parce que conflit d'intérêt day am. Mhm. mais pour yow pour développer leen. Mhm. au niveau local lan lañ war a def. d'accord parce que bu doon ni dëkk bu ne mairie ba fa ne mi ngi def li ko war état sax du sonnati état central. jërëjëf waaw li solo la. mais sama xalaatee ci mairie yi mooy d'abord il faut ñu def lu ñu tuddee restructuration ndax ci constitution Sénégal dañoo wax ne balaa ab terroir ñu koy ériger comme commune wala département. dafa war a viable day fekk mu am. koom-koom boo xamante ne mën na tax ñu def ko collectivité locale mais dafa am jamono dañu doon dagg rek pour pour nga nekk maire wala kenn nekk maire ñu daggal la acte trois baaxul acte trois dafa d' abord dafa supprimer région yi te région demoon na ba am envol mu supprimer ko créer département boo xam ne tey il faut ñu xoolaat ndax rôle am moom mënu ci dara ndax département bu demee booy def liggéey bi commune war a def amul sens département bu fekkee am naa ci sens ñu man su ma ko naree téye bañ koo supprimer naa xoolaat lan mooy mission am communes yi aussi naa xoolaat seen espace mais surtout d' abord ñu war a renforcer seen capacité financière ndax bu ñu la falee te amoo loo loo liggéey aussi loolu doo dem fenn donc nañu xoolaat espace bu maanaam commune u Sangalkam wala commune u Ndiob fa ma dëkk est-ce que espace bi c'est viable pour mën a liggéeyal boppam ma ñu jox ko aussi jumtuwaay ci wàllu euh, koppar loo tax ne dina tax loo xam ne dina tax mu mën a liggéey territoire bi waaye nag am na leneen mhm. toujours c'est la gouvernance mal gouvernance bi du DG rek mais maire aussi mu ngi mhm. bu ñu la joxee deux milliards ne defaral château d'eau wala defaral ndox wala hôpital nga def ci loo xam ne du priorité loolu aussi dafa am ci maire yi kon euh, ñaar la d'abord il faut que état central gën a dooleel collectivité ci wàllu koom-koom mais aussi yaakaar naa profilu maire euh, xëy na am nañu mën a wax ne du démocratie waaye il faut ñu xoolaat ko pour ndax am maire comme un président bu fekkee dañu laa fal maire te amoo ci benn vision doo dem fen ñu ci bëri dañu leen di fal mais amuñu projet pour seen commune xamuñu fu ñu jëm ah, c'est vrai parce que ñun gis nañ mair yoo xam ni amuñu vision. non li nga li nga wax ni. da ngay falu maire mais am na ñoo xam ne monsieur le maire bi donc leen yittee loolu. ça waaye vision zéro. amuñu vision xam nga léegi li ci li ci grand mooy maire léegi <laughs> maanaam mooy renouvellement parti politique bi. Ah. maa ngi bu ñu bokkee gox. Ah. te jubóoñu damay xeex pour nekk maire comme ça ah. su ma nekkee maire. automatiquement damay am poste ministre wala DG donc poste maire bi au mu doon poste boo xam ne finalité la pour liggéey sa terroir uh-huh. non mais moyen la pour accéder uh-huh. koo ci fal DG nag wala ministre si finalité bi dañ koy dañ kon ñu dindi ci politique bi daal est léegi yaakaaru ni man sax man moom est beer tamit parce que beer man defe naa ni lii fi romb mais mais yi fi doon defe naa ni lii fi romb war nañ cee delloo waat xel yi quoi tamit ñan ñoo war a postuler pour. Euh, demander li nga xam ne mooy bi d' accord naa ci te te li nga wax gis nga bu fekkee am na benn homme bu mag Sénégal bu doon wax ne ku neen na gagné fi nga dëkk. Mhm. ñu gagné fépp. mais man damay wax ne ku neen na développé fi nga dëkk. ñu développé Sénégal. ah chaque maire bu fekkoon xam nga li li tax ñu fal la maire. Mm-hmm. nga def ci sa capital mm-hmm. maire bi développé maire yëpp développé Sénégal développé. Ah mais bu fekkee damay jël poste maire bi te amu vision juste mm-hmm. pour wax président gis nga. maa bari mbooloo moo tax ma gagné maire. comme comme ça ñu nommé ma DG. mais duñ dem fenn. wallaay li nga man damaa ne gis nga. ab maire moo gën a bari liggéey ab ministre. bu fekkee yow xam nga li nga war a liggéey. yaa gën a bari liggéey ab ministre bi. li ci des mooy buñ amee nag maire am na ah. ambition pour ñu jox ko les moyens l' état transféré les moyens nécessaires pour ñu mën a développer les collectivités territoriales c'est li nga wax ni kilifa gi li nga wax ni xam-xam la c'est ba damaa gis maire yu am jot goo xamante ni bii wëndeelu ko non li muy wax nii moo maire bu xam loo liggéey amoo amoo jot amoo jot amoo amoo jot mais boo ko lim la wax nee na la maire ëpp moo a man bu ko am ambition pour sa territoire xam lan la war ba nga bu ñu fafal la maire waaw non doo am jotu yi def yéen <laughs> mais est-ce nekkul ni politique bi lañ ci war a dindi parce boo xoolee acte acte de PS pour commune defoon ay commune la def ay coordination PS ak deux loolu moo ko indi woon exactement waaw ah, xam ne affaire politique la woon ak tamit affaire politique la ah. est-ce waaye nag ki war a ñëw yow la ngay sas jomaay ci ah, wàllu boobu attention maa ngi fat maa ngi bëgg a wax benn affaire bu am solo gis nga PS nag hmm. man en tant que jeune des années quatre vingt quatre vingt dix dañoo opposé woon PS lool hmm. bañ PS lool waaye nag suñu jeunesse aussi dañ doon def politique bu bu sell ñun xaalis toppu ñu toppu ñoon xaalis on était avec Wade dans l'opposition li nga xam ne yu bëri dañoo yaakaar ne politique xaalis la euh, donc dañoo contrôle PS waaye plus tard bi ma jàngee ba xam lan mooy développement territorial mm-hmm. damaa gis benn texte boo xam ne dama koy tudd souvent yéen a ngi fàttaliku li ñu doon wax ooye congrès sans débat du PS en 1996 mm-hmm. bi ma demee ba liir discours boobu laa ne maa ngi jégalu li ma doon waxee ci waa PS mm-hmm. parce que nag ah. PS le parti moo nekkoon laboratoire mhm. pour xalal yoon fi état bi war a jaar te loolu moo am c'est on parti li nga war a servir mooy bu fekkee jël jël nga pouvoir mhm. yaay xalaat li nga war a def pour état bi mën a liggéeyal askan gi mais parti nekkul rek mobilisation Ndiaga Ndiaye non non ah. war a am xam-xam mhm. gis na bi ma léeree déclaration bu Abdou Diouf boobu 96 bi ñu doon xasee sans débat déclaration boobu moo moo indi woon acte de maanaam l' acte de 1996. boobu sax dañ ko tudduñ ko tudduñ ko bu baax ci si si 96. ci lañ def régionalisation. te man ci sama wàllu bopp à part 112 xëy na bi ñuy créé ko rurale. waaw 96 euh, mooy acte bi gën a am solo ci suñu décentralisation. gën acte trois bi. non du benn. Hmm. kon PS mës def lu am solo. kon acte man déggoo li ma la bi ma liiree. bi ma liiree discours bu Abdou Diouf 96. ci ah. congrès ba. Ah. damaa ne tuub naa li ma doon wax xas parce que amu doon débat waaye njëriñ kese. nekkoon mais mais loolu lu ñu kii la mais lu ñu lu ñu bind la mais ñu ko de. si. pratique dëgg li ma la wax. Ah. congrès li la nekk ca discours congrès Abdou Diouf. waaw moo jur l' acte de 1996. Mm. ci lañ créé les régions. ci lañ créé les neuf compétences transférées. Mm. c' est la première compétence yu amee noonu doole ñu transféré ko. acte 3 bi dafa yàq lépp. acte bi. dem ba région commencé am développement. mu supprimer ko mu doon lu métti ci développement local créer département te le département euh, finalement daa mel ni daa mel ni amul liggéey. Uh-huh. ndax euh, ab département boo demee ji tabax ay salle de classe. ay uh-huh. adduction d'eau te loolu commune yi moom mën nañ ko ba ba mu ba pare. mais yow mais yi formation ñu xam exactement. ah c'est que mais ah. lan mooy seen liggéey. parce que maire yi man attention man xamuñu seen liggéey de. ci formation laa dëkk. waaw mais am na ci ñoo xamante ni sax. ARD def leen di empêcher tourner en rond. ndax tey booy. passe booy passé marché du siis dañ lay conseil lii moo jub lii mu li la wax bul def lii defal ne. mais xam nga loolu am na ñoo xam du leen arrangé. exemple bu fekkee da ngay lancé marché. Euh, léegi avec euh, réforme Macky yi dafa bëri lu ñu tuddee euh, DP simple. nga xam ne da ngay xool soxna si saa ak Omar bind leen lettre ne damaa bëgg a tabax. Euh, benn benn wala damaa bëgg a def benn addiction d'eau. 3 millions la 4 millions la donc. en tout cas loo xam ne du tax liggéey bi mucc ayib. mais da nga doon gis ñoo xam ne dañuy am ay marché yu baax mais dañu dañu doon wax ne bu ñu faralu état rek seen i mbir pour ñu yombalal leen ko day metti loolooy tax parfois. Euh, euh, mais bon gouvernance moom mm-hmm. waroo maanaam état amul parti da ngay doxal li yoon wax mm-hmm. mais encore une fois Euh, mal gouvernance wala bonne gouvernance boobu autant ñu ngi koy wax ci DG yi ci niveau national ci ministère yi waaye lu mën a gën a war a taxawal la ci au niveau des communes mhm. kon ñu dañuy gis nga ab maire bu fekkee am na maire yoo xam ne boo suma leen a gis mhm. parce que xëy na ils sont des ministres duñ toog duñ donc mu bëgg na ñëw former bi xam nga maire bi jël ab commune am ñu fal ko mhm. mu am jotu commune bi bugg a liggéey kooku boo ko formé dina dugg ci boppam dina ñëw ci conseil technique bi laaj ko Dia hmm? est-ce que tamit euh, yow si nii nga nii nga sa nii ngay waxee euh, nga gën di euh, leeral mbir yi est-ce que du loolu tamit loolu moo charmé ki nga xam ne rek moom moo di Diomaye mu xam ne yow mii liggéeykat na mu woo la ni la ñëwal ci man. charmé mhm. c'est trop dur mais mhm. li ma jàpp ci Diomaye. Mhm. parce que ñu waxtaan bi gën a bëri yëpp prison laa ko doon fekki. waaye nit ku am équilibre. nit ku maandu nit ku teey kon euh, charme moom c'est trop mais li ma leen mooy Diomaye ku fonk xam-xam la te fu mu fekk xam-xam dina ko jéem a utiliser waaw ñu koy ñaanal euh, réussite totale ci yeen bu bees insha allah waaw kon dinaa la indil ay maire nga permettre <laughs> non non dafa wax Ndakaaru gi Ndakaaru gi am na ARD bu fi nekk. ah. nan yow mais am na ñoo xam ne yaa ngi am na am na yoo xam ne am na mer yoo xam ne. na mer yoo ne fu ñu toll. waaw ñu ngi may woo. directeur de lii laa bëgg def. directeur lii laa xalaat. ma leen ci gunge mais am na mer yoo xam ne mosuma leen a gis. Hmm. yow boobu nag ngóor bi ñëw indi nga jàngal amul problème ñu ngi koy xaar. mais ci jàkk wax nga dëgg maire warul am jot. non weer amul jot amul. maire buy liggéey. <laughs> Eh. amoo jot. Ah mais comme li ma wax rek c'est maire yu bëri tey maire bi eh, da nga koy def pour wan président ne man maa ëpp mbooloo. Ah, donc maire maire bi intéressé wu leen. Ah, xëy na am nga mbooloo waaye maire bi intéressé leen maanaam li leen intéressé mooy. poste DG wala poste ministre ba. donc mais booy falu booy laaj maire bi dafa laa war a intéressé. Mhm. nga war a. takk sa ndigil. Mm-hmm. daal di daal di xuus pour liggéeyal sa maire. macha allah mm-hmm. jërëjëf ne ah li ñu wax de nee ministre maire ñoom duñ ko nangu cumul de fonction du ñàkk ni dina régler problème bi ñu bàyyi la nga tàggatoo foofu. Euh, jërëjëf maa ngi encore une fois di gërëm bu baax a baax. Mm-hmm. Euh, waa plateau bi ci invitation bi. Euh, di gërëm waa Sénégal ñuy déglu. ci biti réew ak bi réew mi. en tout cas di wax leen changement. Sénégal ñoo ko bëggoon. am nañ ko loolu waa Sénégal ko bëgg. Mhm. li ma ci doole nag mooy boo bëggee changement. Mhm. muy président. Mhm. muy ministre. muy DG muy maire. muy béykat bi. muy gardien bi. il faut nga nangu aussi doxale changement. président mën na jël décret. mën na euh, taxawal projet. mais bu fekkee aussi changement ngi ci biir te man mi ni nga xam ne sama biir ca ARD. ki nekk maire fële ca mi kii bale kii garde ki joxe semence maanaam jiw ji changé changement am kon changement ñu ngi koy xaar ci président ci jubluwaay bi waaye le vrai changement c'est à la base ñu ñoo war nangu changement ku bëgg Accra da ngaa war a ñeme kaane loolu laa bëggoon wax jërë ngeen jëf merci beaucoup merci waaw euh, Djidjack Faye ni koy jaajëfal bu baax di ko nuyu euh, di ko remercier ci xam-xam bi di di ko gërëm bu baax bokk coalition Diomaye président di nuyu bu baax a baax Assane kay. semaine bi moom non non ñu mu tànn ñu mu tànn si semaine bi sax xoolal. jërëjëf semaine macha allah. merci beaucoup di nuyu bu baax a baax kon di la ñaanal jàmm di la jaajëfal bu baax. jërë ngeen jëf merci. waa salaam nuyu nag waa Fatick. Euh, nga nuyu ñu leen bu baax a baax a baax ndax lii rek dafa am solo. Mhm. nit ñi dañuy soxla ñoo xam ne bu ñu dee wax dañuy xam dañuy wax. Mhm. surtout ci loolu. Mhm. donc ñu nuyu ñu waa Fatick lu bëree bëri. donc dem régie ànd ak euh, suñu sponsor leader daal di ñëwaat seen boutique solution ci njiital alaaji Sanjoogu Mbeng ak ay bu jox ngir dëggal ak wéral ni suñu garabi cosaan yi lu wér la li waral seen boutique solution juddu ngir jële fi bépp xeetu caay-caay ci wàllu fajum cosaan ndax nit lekk alalam joxe ay garab yu wérul looloo waral ci diirum ñaari at yu manqué tuuti seen boutique solution di def ay résultats yu ama am solo biir réew mi ak bitim réew ci garab yii ñu leen di bëgg a limal ndoxum siit yi amuñu ci moroom hémorroïde bi nëbb ak bu feeñ góor gu néew kàttan ay garab yu wóor te secondaire moytu leen garab yi ndox yi estomac dañ koy faj ba mu wér garabu asthme bu efficace même boo amee woon asthme bay piqué crise ñëwal fii ci boutique la solution bépp xale wala mag buy gént di tuur ndox ballottement tànk buy xar ba borom mënta sol ay ferme li jaaxal àddina bi yépp nag muy raay mu sedd bii ne ci boutique la solution lépp luy douleur ci yaram boo koy raay mes lay def am yeneeni mbir ci biir nag moo tax ñu naan ko raay mu sedd plus jaloore ak résultat yu la boutique solution di def tax na ñi ngi fépp ci bitim réew am na ca France États-Unis d'Amérique Canada Italie Espagne ca Gambie ca Angleterre Allemagne ñoo ngi wal face Walfadjri ngeen mën a jot boutique la solution ci 78 426 66 77 wala 75 630 50 50 boutique bi xaatimul listixaarul seetul su ngeen bëggee dégg dëgg daal ba boutique la solution juddoo la jaay garab yi bon ak naxaate jeex jërëjëf El Hadji Modou Diouf ñu àndoon ak ñi nga xam ne rek moo di suñu sponsoritaire bi solution mi solution ne jàkkaarloo Walfadjri leeru jamono la voix des macha allah sukaa na nga ko waxee noonu la boutique solution en face Walfadjri la nekk di yëngatu ci garab yi nga xam ne ñooy garab yi cosaan sénégalais yi nga xamante ni bi solution bi mu ñëwut xaw nañoo dee gars yi yàgg nañ leen a rey di leen jox lu leen <laughs> neex nag ñooy naan te li ñuy naan dara baaxu ci ay tamit wëlbatiku ñi nga xamante ni bi loolu la leen di jox bokk ci bu fekkente ni bi sax seen xaalis jot dañ koo dugal daawuñu jorati gars yi waaye bi solution ñëwee yooyu yëpp dafa dakk muy tappale ah, ak wuur bi nga xamante ni moo amoon di la jox garab yu baax boole kook mu lay faj kooku solution donc koy def euh, moo mën ma wóor ah, jërëjëf Mbengue Mbodj ma nuyu ko euh, euh, son yi ba nuyu naa la jooba jubba ñaanal yàlla jàmm di am mbégte eh, eh, jàkkaarloo waat ak yéen mhm. xam naa soo génnee rési nga dem soo génnee nga dem rési mhm. wuy ji Assane Mesre tey lan la la tuddee ginnaaw bi mu waxee woon seen <laughs> son bu njëkk ba <laughs> après déedéet tey beneen tur la nga ne wuy ji Assane Mesere nuyu moom ma Diop ñaanal ko jàmm nuyu it xarit Serigne Sidi moom Serigne Abdoulaye Xan Mbàkke ñaanal Serigne Sidi mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak teraanga yu bari yi nga xam ne mi ngi koy def ci euh, euh, korité koor gi ak lu dul koor gi waaw di di ko def nag chaque jour te la muy def it ñam koy defal taamul euh, lekk ku néew doole ku am doole la muy jox président de la république bu fa demoon moom lay jox néew ji doole ji ah, kon boog euh, Mbàkke yàgg fi lool te ànd ak wér nuyu Omar Bun Xataab Gueye de Kër Massar di nuyu euh, suñu yaay ajaratu ndawa di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax ndawa dañoo waajoon dem ndogu ji man ak Assane kër Saa Njoogu du ko nangu Saa Njoogu ni bis bu ñu waajee dana mel ni ba Sonko di wuy ji ci convocation Mame Mbaye Niang ci ay lacrymogène léegi nag ñu ni fa ñukk saa njoogu léegi ñun ndawal la ñuy demal euh, ndogu jël incha allah. kañ ah déet noonu. ah bu ngeen dee dem yóbbaale leen ma. léegi ñun ndawal ñun ndawal la ñuy ndogu jël ñun fi ñoo parce que boo demee di ndogu ji nit ba mu nar a dem ji wut nee na lak day dem ci police ba. fay <laughs> waaw fay ay policier pour jël euh, chargé ko ay lacrymogène pour bu ñu ñëwee ñu dóor ñu ko léegi nag ba ba nañ ko faak ndogu force leen baar bi ba nañ faa ndogoom léegi ndawa la ñuy ndogoon incha allah daay laxay la la mu jeex takk sooy bu wax dëgg yàlla bu ngeen dee dem na ngeen ma yóbbaale la waaw jeex na maa nga ca biir ndax moom agsi mooy xam na moom waaw jërëjëf <laughs> donc ñu dem jëli ak théâtre du jour maa jigéen Diop <laughs> euh, madame Dieng Sala tey <laughs> dañu indi non fi dafa neex de fii ça rek. Mm, na waar euh, euh, daañu waxtaanee nag euh, cérémonie de passation de pouvoir bi fa yéene am fële ca suba ci centre international Abdou Diouf bi ñuy dippee SICAD suba nag président de la République du Sénégal. moo fa fas yéene euh, joxante lenge yi ak ki nga xamante ne nii moo di le nouveau président Bassirou Diomaye Diakhar Faye comme ni ko son bu di waxee nee na waa ji moom la koy waxee Mouhamad Bachir. <laughs> waaw <laughs> fële ca jëm ñaajo waaye nag am na lu ñu waxoon ne moom Bassirou Diomaye fay dafa bëggoon ñu def affaire yi rek ci ni mu gën a simple waaye nag président bii di Macky Sall daf ko wax ne ko loolu mënul ñàkk ndaxte dafa am yeneen pré njiitu réew yi nga xamante ne nii ñu ngi fa nekkee ci bitim réew dañ leen invité woon te ñooñu xajuñu fële ca cour suprême moo tax rek suba daañu ko amal foofu buñ ca noppee nag bu ñu euh, paree euh, kii di Bassirou Diomaye Faye dina daal di def moom tamit. Euh, prêter serment am euh, wax ak sénégalais yi ak euh, ndénkaane mi nga xamante ne ni dénk nañ ko ci loolu itam euh, ci la ñu déggee ab information bu biram Souleye Diop mooy nekk Thiès nekk fa maire xam la ne ne au plus tard Birame Souleye bu PASTEF au plus tard mercredi incha allah gouvernement bu bees bi rawatina nag seen premier ministre bi daañu ko xam incha allahu rabbi kon Omar loolu moo nekk tey actualité du jour toujours le fait président Macky Sall euh, bëgg a amale mbir yi fële ca euh, ca sikkat waaye Bassirou yitam amoon na lu mu bëggoon mais euh, xam naa après rek biñ ko bi ko Macky Sall expliqué si la daal di comprendre xam ni mbir yi suba lañ koy xaarandi foofu incha allah rabbi fu mu mën a amee rek baax na mais l'essentiel mooy na am rek te am ci nu mu gënee te loolu dañ ciy sant yàlla mm-hmm. parce que un mois ci ginnaaw bi Macky Sall naan. pousse nañ bu la deux damay dem. Mm. tey jii bu tombé woon ak ñu dem deuxième tour dañuy nekk ci crise mm-hmm. moo tax euh, réew mu yàlla bëgg lan yor. <laughs> daf ci am loo xam ne euh, du yëfi nit sax da koy delloo suñu borom. Mm-hmm. la fekk que jàll ci première tour ni ko askan yu bëggee suñu borom defee ko noonu maanaam ñun ni ko bëggee yëpp noonu la ko suñu borom defalee mm-hmm. looloo tax euh, dañuy am njort ci nguur gi. maanaam liñ ciy mébét seetloo premier tour la ñu bëggoon lii lañ bëgg seetloo yàlla dañu ci fekk si te dara ñaawul ba tey ji nga gis la président de la république Macky Sall ñu bari doon xalaat ni eh, est-ce que am na yéene joxe la pouvoir def passation de pouvoir maanaam euh, comme ni ko Abdou Diouf def defee ak Laye Wade. Ablaye Wade def ko ak Macky Macky est-ce que dina ko def ak kii am yàlla dogal ni ëllëg loolu day am incha allah. kon loolu moom sant la même bu ko bëggul woon sax suñu borom ñun defal nañ ko ba mu gën defal leen defal ko nu ko bëggee kon loolu dañ koy rafetlu léegi nag ak fu mu mën a amee mooy ni la ko Diomaye bëggee ak nii ak ne bu ñu bari dañuy fàtte ni Macky mooy organiser cérémonie bi parce que ba suba ba ba muy joxe pouvoir bi moom mooy moom président kon mm-hmm. xewam la mm-hmm. léegi nag mun ci tàggu Diomaye na ko mm-hmm. Diomaye ne ko nii laa ko bëggee mais dernier mot bi dañ koy bàyyee Macky boo xoolee même carton d'invitation yi Macky moo ko joxe mooy invité ay ganam kon loolu dañ ko koy nangul mais li ci Diomaye fekk tamit loolu tamit élégance républicaine la loolu nag kenn du ne mieux vaut tard jamais kon dañuy bàyyi rek euh, ñu defee ko ñoom nu ñu ko bëggee. Mhm. léegi nag bu ñu jugee ci loolu ba jokkalante nguur gi li ñuy xaar ci ñoom mooy liggéey. Mhm. Euh, liggéey boobu la nag du liggéey bi ñuy yàkkamti. lu liggéey boo xam ne rek da dañ naan jomaay falu na rek lépp dafa war a jaar na mu jaaroon bu ñu fàtte ni juróomi at wala fukki at ak ñaari Macky Sall réew mi da cee yàq lu bari. Mm. Sénégal na ko gaaw fàtte danoo amnésie yàq lu bari jafe-jafe yu Sénégal ba fi ay bor yoo xam ne kenn xamul nu mu toll surtout côté bor te saboté ak bor yooyu yëpp day wéy ba tey ba ci nomination yi ngay dégg. ñu kon ne di ko def du élégance même bu la ko yoon mayee man yenn saa yi dama naan lépp loo xam ne sa sañ-sañ dala koy may sa ngor dala koy xañ. Mm-hmm. xam ne defaat fois di nga am sañ-sañ ci dara sa ngor tere la ko. Mm-hmm. nga ne ah lii de bu mu ko defee mu ñaaw. d'accord waaw pourtant mun naa ko def. Mm-hmm. mais nit du lu muy mën yëpp lay def. nguur googu nag buñ ci jugee tey jii am un président boo xam ne anti système la musul nekk ministre musul nekk dara. musul nekk maire musul nekk député war a un président de la république. da niveau d'exigence yi dañ koy wàññi. léegi par rapport ak premier ministre bi. non man ji nga loolu loolu moom sama sama personnalité la man li nit ñi di wax man nekkuma ci niveau boobu kii mooy nekk premier ministre kii mooy nekk maire kii lañuy fal directeur sàngam ji nga man bu ma la xasee ba fal dama lay wóolu. ji nga tey ji ku jomaay mën a tànn ci réew mi ak fu mu mën a jóge ak ku mën a doon. na doon koo xam ne. Mm-hmm. nay liggéeyal réew mi rek réew mi gis seen bopp. d'accord. Mm-hmm. <laughs> du ko tànn <laughs> du ko du du ko tànn na mais xam nga des fois il ne faut pas que nga koy mettre la pression tey jii nit ki moom danga koy wóolu rek comme wóolu nga ko. d'accord da koy bàyyi mu tànn ki muy tànn. Mm. ànd ak moom liggéey ak moom mu ndee ba ci kanam nag ñu commencé di leen juger. Mhm. mais du ci moment bi la leen jugé tey ji bu premier ministre bu daan woon rek ñu ne diw la. Mhm. di nga dégg ay critique ak ni alors que nit ki nit ki da koy bàyyi mu dem da nga koy bàyyi mu œuvrer <laughs> œuvrer liggéey. bu nee ba ci biir liggéey bi nga gis ci nag loo mën a dingat. wala nga gis ci loo mën a ñaawlu nga ñaawlu ko. Mhm. mais def ci paaka kenn du ko jiir ci mbaram te sañ-sañ boobu. kenn amu ko ku dul Diomaye Faye mooy tànn premier ministre am. léegi nañ ko bàyyi mu tànn ki gën rek te gën ci réew mi. d'accord sooy mhm. bu suba la cérémonie bi ñu koy amalee fële ca Diamniadio euh, passation de pouvoir après euh, buñ ca noppee euh, bassiru daal di jàkkaarloog askanu Sénégal daal di waat. Mhm. ne dina yor réew mi peut-être ci niñ ko bëggee incha allah. waaw jërëjëf ma jigéen xam naa ci tomb bu ndaw rek nga may ma comme booba léegi amoon sans wax ci. Mhm. ci benn la rek ci même sujet boobu. muy Sénégal yu bëri yi ñaawlu. takk ndeeru Ousmane Sonko ci wetu Bassirou Diomaye Faye. waaw waaw waaw damaa gis démb commentaire yu bëri ay xale di ci commentaire lu lu lu xoromu waaye nag dëgg la mu ni kan ci yéen ñiy wax ni Ousmane na sori Bassirou moo bëgg baayam sori yaayam. wallaay gis naa ko man dem ci tàntaam yaa ngi koy mm-hmm, gis. gis naa ko cest loolu nag. dafa mm-hmm. nekk loo xam ne nit mënoo ànd ak nit xeex. Mm-hmm. ba jot li nga jot. ñu tëj la kaso ndax moom. gazé la def la lépp mënoon a dàq élection yi nga sacrifié wu ngir moom. ñëw ba agsi fii ñu naan muy topp ci ginnaam lu nekk ci wetam bu ñu mënee sax nañ bokk benn mbàjj bu ñuy ah, bu ñu déglu benn sénégalais <laughs> voilà parce que man jàpp naa ni euh, maanaam Sonko ci wetu jomaay loolu ndamal Sénégal la mm-hmm. léegi nag bu ñu ñëwee ci suba li xew président Macky Sall man li ma gis mooy dafa nekk ba léegi ci defar image am waaw parce que nag boo bàyyee xel ma jigéen ay weer ci ginnaaw dañ doon wax naan président bu euh, bu bu sonal waa këram la waa dëkkam presse nationale beeg internationale ku ci nekk di ñëw ba moom sa président Sall mu doon wax doon gaaruwaale tubaab naan yoroon nañ seen i bagage ñëw waaye incha allah du am dara luñ fi nettali maanaam duñ fi jëlee ndam mhm. jàppoon ne xëy ne réew mi day tàkk réew mi dafa am fu mu jëm mhm. léegi ci biir loolu nag pour président Macky Sall ci kuréel yi mu bokk ci bitim réew fu nekk mhm. faaw mu jéem a wan président yi leen ay la yéwén li ma sama waa dëkk doon waxal lu ci la mais Hmm, defaluñ ko woon lii maanaam defalul woon lii président Macky Sall Abdou Diouf waa non comme defaluñ ko maanaam ni président Macky Sall pare pour jàppale ñii gunge leen ci invité yooyu maanaam président Macky Sall amu ko woon mhm. defoon na passation de pouvoir après Abdoulaye Wade génn pale moom mu toog après continuer ñaanal na ko nee na ministre am nañ ko bàyyi mu liggéey mhm. mais li nga xam ne am na dama jàpp ne dafa am lu muy rattrapé loo xam ni ba léegi dafa nekk pour defar image ndax bu yàggul sortim bi mujjee def RTS dafa wax ni image yàqu na mhm. ci li nga xam ne moo am dëgg la ñu jàpp naan nag Sénégal moo ci gagné euh, Omar mi ngi wax léegi pour bu ñu demee nag ba tànn yaa ngi koy wax ci premier ministre bi mhm. jàpp naa ne man soaay bu li ma jàpp mhm. mooy bis bu ñu falee gouvernement bu bees li nga gis aw doxalin non non da nga gis aw doxalin wu yees muy dinañ gis ay liggéeykat Ah, waaw alaaji moo ko moo ko moo ko moo ko doon faral di wax gis nga ñii ma gis nii maanaam politique bu yàq moo leen indi ci politique bi am na ñu dem ba tuddoo mbiru suuf yi ci suba ba alaaji di leen dànkaaf saa gis nga ñii jël réew mi ay liggéeykat lañ duñu ay politiciens léegi nag comme ay liggéeykat ñoo jël réew mi man jàpp naa ne bu ñu falee ministre bu ñu fal dem nañ ba xool sa compétent jàpp ni war nga mën a lii ñu fal la ko mm-hmm. te jàpp naa ne kuñ falit ñu gis ni da nga naroon nekk euh, comme li fi xewoon mm-hmm. man jàpp naa ne benn ministre du yàgg ci postam man loolu laa gëm ba keroog may gis leneen jàpp ma sénégalais yi naa dinañ gis nangam ted yu kii ak man ted yu bees ak mën nañ gis sax ted yu màgget mais dama gëm ne ñii fi nekk non non critique yi moom laa wax gis nga tey ñii fi toog mm. président Diomaye ak Ousmane ñii même bu ñu jëloon màgget yi nekkoon ci président Macky Sall indi leen man dama gis gouvernement buy liggéey moo tax nag waxuma la ak bu ñu fii di ay ted yu bees en tout cas daal li may ñaan mooy euh, ñu am ndam te bu ñu ndamee Sénégal moo am ndam bu ñu ko amee Sénégal moo ko am euh, li ci des yëpp daal yàlla nekk ndam bésu suba bi yàlla na jàll ci jàmm président Sall joxe lenge ci jàmm Bassirou Diomaye président Bassirou Diomaye dem toog gérer ah bu ko defee nag après ñu xool ñu am dundin bu bees. incha allah waaw te ñu fàtte yóbbu moom moo ko. <laughs> <laughs> en tout cas sénégalais yëpp loolu la ñuy xaar ci ñoom liggéey bu jaar yoon su kay na euh, suba la euh, passation de pouvoir ak euh, prestation waa ak jomaay ak gan yi ñu nar a amal ak le fait jomaay yi bëggoon ko defee rek yamale ko fële ca voilà loolu mënul ne mm. benn man li may njëkk a rafetlu mm-hmm. mooy le fait que fait vendredi ñëwuma jeudi ñëwuma le fait que Sonko ak ki nga xam ni moo di président Diomaye dem seeti président Macky loolu moom ku mu doy sa ku mu seddu sa xol leneen du sedd sa xol ndax loolu mënoon naa ñàkk te président Macky def loolu mhm. man pour man euh, président yi dafa bëgg a sargal ki nga xam ne moom moo di président Diomaye ndax dafa am loo xam ne président jomay Faye da koo da koo am te kenn mësu koo yaakaar koo xam ne nekkoo woon député mosoo nekk député mosoo jaar ci benn ko loo xam ne ama mosoo koo def ñu jëm ñu def premier tour nga gagné mm. mu nga ne lii laa bëgg ndax dafa simple jom président Diomaye ko gis xam ne ku nit ko simple la mun na loolu duma ko damay dem jëli ñi nga xam ne mooy damay invité invitation invité naa leen ba pare mm-hmm. loolu duma ko kon da koy sargal man pour man euh, ki nga xam ne moom moo di président Macky da ko da leen koy da koy sargal wan ko nii ak nii ak nii ak nii la man pour man ci sama man ci sama gis-gis te tax lu ma ci loolu lu ma ci kontaan la ndax nit bu jëlee réew dañ ko war a dafa war a am loo xam ne dañ la ko war a jox te dañ ko ko war a jox te da ko war a def pour premier ministre bi ñuy wax kii di ko wax bi Birame Souleye man ku ta ku mu tànn man de wax dëgg yàlla bi ma ko bi ma ko toppee moom Diomaye man maa ko topp te damaa jël sama dama koo jël jël sama temps topp ko bi ma ko topp ba tey moom. billaay wallaay watal non dama ko liir. dama xool Macky dina la mere de. non Macky du mere parce que maa ko bëgg. Macky selon Macky jëmmu Macky laa bëgg man. loolu aw ma ci kii. Mm. mais Diomaye dem bi mu jour bi mu gagné jour bi ne moom moo ko damaa jël sama temps. Mm. may liir ay kiiwam saa day defoon dama koy dóor wala dara parce que ne woon na Macky na ma jox te Macky xaw ma ko xaw ma ko ko xam. joxuma lekkuma naanuma lekku joxuma lu ma xam joxuma dara te teewul maa ngi dund ba tey ba léegi nii mais jomay ci boppam man dama am ci moom yaakaar yàlla yàlla bu waaw dama ko topp te te yàlla bu yaakaar tas ci moom nan ko bàyyi mu liggéey nan ko bàyyi mu liggéey entourage am bàyyi ko mu liggéey moom Ousmane Sonko ah bu bu la ma mercredi lay joxe premier ministre ko mu jox baax na l'essentiel nan liggéey rek jamono ji dinañ ko def waa jamono ji ci liggéey dañ toll yow nag saa yow laa bëgg ñëw ndax déedéet si waaw baal ba ma pare léegi bëgg yow nga nga cëppe ma yow baal ba ma pare cëppe ma bàyyi ma xam naa la yow doo xalaat ci man lu baax foo toogee sa kër yaa ngi xalaat loo xam ne du kii yaa ngi xalaat loo xam ne fi mu ne fi mu ne yow gouvernement bés bi sax yaa ngi xalaat doo xam dinaa ci xam dara wala dinaa ci xam ñenn te duma ci xaw ma ci ñenn ñi ay séeréer lañu xaw ma leen te ñoom danoo danoo am nu nu mel kon deex na bu mu ci dugg demal jërëjëf a yi mbaay alaaji sa waay la na alaaj baal jàmbur nag neen dafa topp jumaay nag mooy nouveau président bi il faut sénégalais yi topp ko pour xam yéen nit ko am yërmande nit koo xam ne du fayonte dégg naa affaire de suuf ak yooyu moom du ñarta ñëw fi di wax naan dañuy jàpp kii dañu jàpp fayonte mais justice dina am ci kàttan yàlla ba leen loolu baaxul ah mais looloo yoon nag déedéet nan baal ñëpp ah, waaw su kii gis nga mbir yi ni mu tëree de ah, Macky Sall organiser na mbir yi basiiru nag moom bu sañoon wax fa dëgg yàlla affaire yi ñu def ko ci nu mu gën a simple rek parce que jamono neexul ak euh, peut-être euh, premier ministre bi ñuy njort ne euh, peut-être balaay mercredi incha allah ñu xam kan la war a doon. waaw li gënoon a rafet de mooy président Macky Sall laataan muy jël dogal ni mu koy defee. mu avisé ko mu waxtaan ci ak moom. Euh, peut-être buñ ci waxtaanoon. loolu nga xam ne moom ngay wax léegi ne kii àndutoon ci lii du am. parce que dañuy wax ne lépp looy def ngir man te defoo ko yëgaloo ma ko daa mel ni. sa bopp ko koo def ngir contre man. Mm-hmm. président Macky Sall nag li sooy bu wax sànq day ciy ñëw. Mm-hmm. maanaam dafa bëgg a. defar image am. Eh, defar image am indiwaaleel ay nit ñu ko gaaruwaale waaleel. dugalaale ci mbir mi yoo xam ni buñ prêter serment ba noppi bokku ci te loolu yëpp jaru ko woon Ablaye Wade bi mu ko du Diouf gañee bi mu gañee du juuf pale lañ dem mu jox ko ay lenge waaye bi muy prêter serment kii def kii dafa demoon stade waaw Ablaye Wade moo demoon stade moo bëggoon xumbaay ba kii bi dem stade mu fees dell mu waat mm. waaye ba ñuy def kii bi ca pale la ko defee lee mbirum Ablaye Wade la woon prêter serment ba moom moo bëggoon ku mbaay boobu moo ko bëggee woon ni mu ko bëggee moo ko organisé boppam. def bu mbaayam bu mag. waaye. waaw 2000 boobu boobu Abdou Diouf jegewu fa. boobu moom moo fa nekk kii ñu jox ko nguur mu jox ko kii mu def. waroon nañu waxtaan daal. du dëkk hmm. Ablaye Wade maa ngi koy fàttaliku macha allah ba mu kii garam bu bu bëla ba. gu weex ga. Hmm. daal na nii di ñaanal. Macky boobu yooyu yëpp amu fi woon te ñooñu ñoo waroon a gën a jekk ci mu présenté ko def comme nii daal ne kii de mooy sama successeur nekkoon na sama ministre nekkoon gis nga finalement gis nga démocratie Sénégal ci man la nekkoon mujj na dem na ba samp partem tey jii moo ma nara a wuutu defal ko li nga xam ne moom la mu daal di def c'est que dama xam ni bu gaa yi ñëwee buñ prêter serment ba pare du ñu yam ci mbir mi mhm. fa la ñuy nekk dinañ jël parole dugal fa yoo xam ni bokk ci bokk ci woon te yooyu da ko tut jar li ko jar rek mooy gañe nañ la yaa ngi joxe nguur gi joxe ko ci discrétion comprendre defal ko ki nga xam ne moom nga kii nga waxtaan ceeg moom mais xam nga bu fekkee ne nit ki dafa la wax ba noppi nga ne ko jot naa invité ay kii ba pare xajut fii dafa mel ni yow kon euh, calculer woo waa ji benn yoon ci li nga xam ne moom nga war a def waaye lu ci mën a am comme que noonu la ko defee mm-hmm. euh, nañ ko bàyyi mu def ko noonu mu gaaw discours yi parce que mu gaaw a. Euh, kii moom bu nit ñi ko commencé wax moom mënuloo xam kuy gaaw ak ku dul gaaw. waaw na gaaw lool sax. waaw day gaaw parce que day gaaw a joxe leen ngay gaaw. mu xëy bu paree gunge ko ba pale. dégg nga Baye a dem. ku koy gunge ba pare. waaw Macky. Macky aéroport soriwut pale. noonu lay jaaree il faut mu gunge ko ba pale. noonu la jaaree noonu. noonu la jaaree jarut muy duggaat Ndakaar di génnaat embouteillage yi <laughs> day sonn di. <laughs> ni mu koy joxee noonu la koy gunge ba pale de. non non dañuy dañuy njëkkee si bu bu defee kii ba pare. maanaam prestation de serment ba pare. waaw dañuy dellusiwaat palais. def passation de pouvoir bi. waaw ah, ah, loolu bi du mën a jaaree doon dañuy dellusiwaat fii. waaw dañuy def de kii bi. non lii bi mooy jiitu. prestation bi mooy jiitu. après ñu def passation de pouvoir bi léegi nag après. ñu dégg dem jam ñaajo. déedéet Macky non non jam ñaajo la ñuy jëfee jam ñaajo la ñuy xëy. non Macky moom il faut mu dellusiwaat ba ba pale. il faut mu dellusiwaat pale dem passation li xëy fajar. woo jox ko lengee. déedéet loolu day yomb bu demee jam ñaajo man dama koy jox kii bu demee jam ñaajo bu paree. mu jaaree noonu. bu paree nga xam ne day jaar noonu. daal di dem. fu mu jëm hmm. Fatick. wala loolu day liggéey fu muy liggéey. yi la fonction moom Moodu euh, nee sax euh, Macky demul euh, demul sikkat day toog pale xaar. ah day toog kii di Bassirou. Ah, léegi ñan ñooy ne ñan ñooy nekk fële. sikkat waaw loolu de moom ma jaaxal parce que mi noo wax ay xam peut-être invité yi ana invité man moom ma naa am léegi ñoom ñooy teeru Bassirou. ah ñan ñooy teeru invité yi. waaw kuy jël parole. foofu ñan ñooy parce que tamit maître de kii yor micro yeeg yooyu yëpp war nañ leen a segg. non non ça ça loolu ça loolu. ça loolu cérémonie boobu am détail de maanaam du am benn détail. macha allah moom nan ko kii rek que démb décoré nañ leen. waaw sa papa ko yow. sama papa waaw kay. sa papa tey bi ni ko waxee nii est lay demee. noonu noonu lay demee xoolal noonu noonu lay demee programme bi lan lay demee. Euh, nee na programme bi ni muy demee mooy conseil constitutionnel. moom mooy nekk ak Bassirou. Sikat ñu def seen affaire yëpp. suñu paree après ñu dem palais. léegi nag ñu joxante leng yi. fan lay ne boobu. Euh, euh, palais. loolu ah moom mooy toog fale xaar. nag invité yi mu doon wax ne. du ñu xaj cour cour suprême man looloo ma jaaxal. loolu la wax. yéen affaire jaxasoo non non loolu pour solennité bi la parce que bi Macky di def prestation ah Pa Pape Omar Sakho bu nekkoon conseil constitutionnel doon ko def da ngay ay pol Kagame yëpp ñi ngi foo woon. yaa ngi gis mais bin paree passation bi biir buntu palais lay amee. léegi nag bun génnee mooy sargal bi Ablaye Wade doon def ak ay ñoom ñoomin seen. léegi nag kii de maanaam mooy bi Ablaye di ko jox loxo. nit ñi di tàcc maanaam bi ñu def passation bi. kii day dugg. kii génn kii di génn. léegi nag foofu nag fële mumbaay bi di xew mais ci biir fële. fi conseil fi ñuy waatee. foofu dara du fa xew. ak lu mu ci mën daal nag. fi ñuy waatee moom dara du fa xew. waaw na na ko joxe rek. moom daal na ko joxe caq bi daal na ko na ko jël joxaat ko. gi nga même même jomaay li muy def mënoon na ko. Eh, xam nga jomaay li muy def mënoon na ko defee sax biir conseil constitutionnel Diomaye li invité yi ñoom ñoo tax parce que Modou nee euh, invité yi il faut euh, président bi dalal leen ba noppi ñu ñëw ñu defal leen réserver leen fi ñu nekk ñu ñu dem xool sax di wax sax attan na wax ne boo comme que affaire bi gudd nañ ni mu ko defee nii la baax na macha <laughs> allah voilà c'est ça en tout cas de toute façon ni mu ko defee népp ni mu ko defee daal macha allah nañ sant taxaw ah, baax na nañ waaw voilà ah, comme leero leeragut ci gars yi est a communiquer waat gën na am ci yoon rek ñu ngi ci yoon nan bàyyi loolu lu mën a xew suba euh, sukkay na bu ñu ca noppee ñoom li ñuy xaar rek ak sénégalais yi di ko xaar mooy que nu liggéey nekk da fexe ba réew mi teguwaat ci raay sénégalais bu ci nekk daal di ci gis boppam yàlla nañu yàlla may fekkee nag ak sal euh, yéen bi lool ci ñoom ba ñu si jàmm ak salaam kenn bañ a manqué ci barke Seydina Mouhamed ci leen jox di dajee suba ak beneen actualité du jour. Euh, son tey am dañoo am tey koo xam ne victime la. di njiital média. di koo xam ne tamit journaliste la waaye homme politique la jiite mouvement bu mag. kilifa nag nit ku nekk ci ñun war naa am jom ak fulla fayda ba sa nawle bu dee wax ak yow nga bañ a génne ay waxam muy bugaan ngay dani tey jii mooy victime bi <laughs> bugaan kilifa la ci réew mi wax dëgg yàlla ginnaaw buñ ñëw président Ousmane Sonko ci lanti système buñ ñëw ko ci teggi suñu xel ci bugaan lay dem ndax bëggul daray système hmm? xelu lan xel moo ciy dem. suñu xel. ah mais ça mën na xel. suñu xel parce que moo ko yàgg incarné moom loolu lay incarné anti l' anti système lay. xel yow waaw mais moom moom loolu lay incarné alaaji. deuxième anti système waaw ah, xelam moo ciy dem mais. mais suñu xel ci la ciy dem. d' accord léegi alaaji bàyyi ma ma introduire. waaw d' accord ñun nga ci biir ci ko nangu. am lii lii tooñ la. dégg nga maam Adja. Bougane moom nga xam ni euh, gaa ñi dañoo demoon ci sëriñ si. ci buxaam ci buxaaba yi. ñu wax leen ni leen ki leen diw wuutu. <laughs> ku xees la ñu ragal Bougane ba tax ñu ni ko doo jàll parrainage yooyu yëpp ci xeex ko la bokk Bougane xeexee nañ ko nu ne. dégg nga maam Bougane moomu moo doon wax xalaatam. ak ku tudd Serigne Saliou xaw ma nag journaliste bi la xaw ma kum ci doon mais yow yow yow jëroo envoyé ojo kilifa gu toll ni Bougane yónnee la ojo nga fiiteel audio bi ba audio bi na ci mbedd mi comme nag mi ngi ci mbedd mi moo tax ñun tamit ñu indi ko fii pour ñëw waas ki buggaan doon envoyé audio wane ne ko kilifa bu la yónnee audio doo ko génnee aywa moo du déglu ko dellu si lan la buggaan wax sëñ maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax sëñ Saliou jëf dëgg naa kàddu yi dégg naa wax ji euh, dama nekkoon ak ay partenaire mais incha allah su ma ci kanam dinaa dinaa la woo pour gën a leeral parce que bari na ci li ñuy wax loo xam ne du dëgg bari na ci loo xam ne nga baal ma ci kàddu gi ay ay kàcc la euh, et puis li nga wax euh, ci suma njaboot ku ci nekk ak fa mu tànn boo tànnoon fenn da ngay obligé ñeneen ñi ñu fekk si la comme mën nañ la bañ a topp comme ni mu amee ci yeneen kuréel yi nit ki jël décision ñeneen ne ko defewuñu ko alhamdulilah ñun loolu daluñu. Euh, yàlla may nañu lucidité ba jël nañu décision boo xam ne ku ci nekk gis nga ci sa bopp. et jàpp naa ne loolu mooy posture bi ñu doon xaar ci man muy décision ak position bu ma assumé na leneen li ci des lu ci waaye wax it da ngay wax rek sa waxi bopp la euh, dégg naa ñuy wax ne le président Diomaye woo na ma téléphone c'est archi faux musuma wax téléphone ak Diomaye woo nañ ma téléphone ne ma am na numéro privé bu ñu lay woo bu lay woo ci kaso bi joomay la woowuma waxuñu waxtaanuñu donc kilifa googu ma dégg muy wax Cheikh Oumar Diagne euh, mag la ci man duma ko wax wax ji tegginuwut mais li wóor mooy xam na li mu waxtu dëkk dëgg parce que man musuma jokkoo ak jomay musuma waxtaan ak moom comme li ñu bëggoon nit mooy jël réew mi te jël nañu réew mi yàlla na sedd guy ci ñoom te li ñu yéene ci réew mi ñu am ko parce que nag loolu rek lañu leen mën a ñaanal bu ñu échoué ñun ñoo échoué parce que ñun ci suñu bopp dañu mus a bokk ci ñuy xeex Macky Sall ak ñi mu àndal kon képp koo xam ne toog na fi suñu yéenee mooy yàlla na ko yàlla dimbali ba li mu yéene mu mën a sotti lu ko moy rek ñun danaan am gàcce parce que Macky Sall lañ bëggoon mu jóge fi en tout cas kaddu yi nga xam ne wax nga ko sëñ Saliou dégg naa ko maa ngi ciy remercier di am mbégte euh, di rafetlu toujours taxawaay bi nañu gën a farlu ñoom ni ñu def ba jot ci réew mi ñun position yi ñu am nañu ko affirmer noonu gëme ko noonu doxale ko noonu ba suñu borom def ëllëg ñu mën a nekk dans de stations de décision li nga ko waxee aussi noonu la man je ne suis pas un opportuniste politique je ne suis pas dans l'opportunisme du ne dama ciy bokk ngir mun a mos du ne dama ciy bokk taq ci ngir bu ëllëgee ñu mën maa boole waaw sëñ Saliou biñ ñu génnee ci pare naa ñun ñëpp dañ taxaw di xataraayu ne dañuy bokk moonte dem nañu ba ci biir man Bougane ma taxaw ne lépp luy bloqué processus électoral bi bokk ma ci nañu tëgg élection yi balaa le deux loolu Sénégal yépp a ngi ciy bàyyi xel kon du man sama bopp moo ma intéressé waaye tey boo xoolee résultat yi zéro yi ak un yi bari na waaw est-ce que ñun bëggoon nañu bokk ci élection yoo xam ne ñun ay zéro ak ay un la ñuy am parce que ku ne xam na ne élection bi caractère référendaire dañu doon xool kan moo gën a bañ Macky Sall pour kooku ñu féetale ko suñu ay vote maanaam un vote utile loolu la sénégalais yi def waaw élection yooyu nit ñi am ay un ak ay deux ñun est-ce que suñu tolluwaay un la ak deux déedéet waaw kon suñu borom mi ñu génne ci élection yi moom moo ñu muccal ci un yooyu ak zéro yooyu waaw mais suñu borom boobu xëy na moo ñu muccal ci war a dugal ci suñu loxo ci gestion x y wala z waaye nañ nangu dogal suñu borom maintenant ñi cay nekk di wax nag man comprendre wu ma parce que comprendre ma lan la ñuy wax li ñu bëggoon mooy Macky jóge fi waaw Macky jóge na fi waaw Bougane dugaloon ci loxoom ak mu ñàkk ci dugal loxoom jëm ndar jaare potu jëm ndar jaare Kébémer jëm ndar jaare Dagana mais yëpp ndar nga jëm rek li ñu bëggoon mooy Macky Sall jóge fi yàlla def na jóge na fi pour le moment daal man Bougane maa ngi savourer suma victoire ci li fi Macky Sall jóge ak ñi mu àndal li ci des nag loolu ci suñu kanam la pour le moment ñii fi ne nañu ñaan suñu borom ak Cheikhul Khadim mu jàppale leen ba yéene bi ñu am ci réew mi ñu mën koo matal te ñu bàyyi leen ñu liggéey jërëjëf sëñ Saliou. wallaay Bougane sant na ko bon sant na ko yées sant na ko sant na ku mëtt waxataanal audio xam nga Bougane bi mu koy envoyé audio bi sa amul jot dafa nekkoon ak partenaire yi. audio bi Bougane amul woon jot. waaye leer na ne ma bi Bougane paree ba woo ko waa ji na ko ku mën a génne audio jàmbur mooy kala woo nga ko kon Bougane na xoolaat Serigne mii mu doon waxal. te xam ni lii ñu ko def luy ñaaw la Omar kilifa di wax audioom yónnee la ko nga génnewaat ko su dee Birame moo ko génneelu itamit ab jàngat la lu tax mu génneelu ko. waaw euh, Bougane déjà balaa may ñëw ci ojo bi. damay ñëw ci euh, li mu wax quoi ne. ñi am zéro yeeg yooyu yàlla musal na leen ci ko quoi te xamul ne l'essentiel c'est de participer waaw le jeu électoral ñi koy enrichir mooy même ki am zéro sax dafa important parce que moo tax ñu mën a dem ci élection mu am démocratie ñu mën a tànn. Mhm. bu doon kenn tànneef du am. kon euh, les candidats yu am zéro am un da leen war a respecté. parce que au moins am na ñu leen ne te am na ñu leen woteel. ah. parce que moom aussi tey jii ñàkk a bokkam euh, du question moom moo ko bëgg. waaw dëgg la askan wi ñoo ne bu mu bokk parce que ñoo ko parrainé wul. waaw dëgg la. comprendre mhm. kon ñi askan wi woolu ñooñu dañoo mérité le minimum de respect parce que tey jii ñëpp ñu nekk président mhm. kenn moo ko ci mën a doon kon kay ki jël deuxième ak ki jël ndaare ñu bokk ah. àtte ci élection bi wallaay wallaay loolu luñ mënoon a souligner kon ñi participer am na beaucoup dem mérite d'accord parce que ñooy ñooy tax président bi falu am valeur quoi valeur si président bi falu ñi nekk ci doon jongante moom moo tax mu am valeur mais bu faloon boppam wala amul démocratie du am benn valeur wallaay wallaay léegi nag bu dee nii audio bi audio bi ak ak Bougane Gueye. Eh, man dama ci am benn jàngat dama déglu seen Saliou géey waaw ci benn. non non damay ñëw bu nekkuma foofu. ci Sénégal set ñu laaj ko ci Bougane. waaw xam ne sëñ Saliou day liggéey ak moom seen TV. Mm-hmm. mu ne dafa raté le train de l'histoire mm. maanaam dafa raté le train de l'histoire daf euh, euh, Bougane sëñ Saliou Gueye. léegi le lendemain ma gis audio bii nii ak audio bi ni ñu ko travaillé. waaw day mel ne tontu la ci sëñ Saliou Guèye boo déggee fi sëñ Saliou Guèye doon analyser. Mhm. Mm. ak ni Bougane waxee day mel na tontu kon pour man euh, audio bi lu ñu préparé la. ok ah loo xam ne rek danoo tëb rek fiiteel ko nii quoi. ah fiitewul même la fait que montage bi ak dagg bi sax. da ngay sentir ni lun li la parce que sëñ ba tey waxuñu la santam te boo xamee tey jii sëñ Saliou géey ak position bi mu jël ci position Bougane ci mhm. ñàkk ànd ak moom ci bañ a jël décision mhm. kon day mel ne sëñ Saliou géey la doon waxal mm. maanaam sëñ Saliou Guèye dafa def interview ba pare eh, Sénégal 7 mu woo ko waaw dégg naa mu naan ko ni nga ni maanaam ni nga taxawee ci sama wax am na solo. ah <laughs> mooy boo boo amee dégg dégg ñaari wax yi. day mel ne wax bee la doon tontu kon lu ñu travailler parce que Bougane loo ko bañ bañ xam ne seton un communicant te ku yàgg ci communication la. Ah, léegi nag sëñ Saliou bi muy waxal nii. Hmm. bu dee moom moo génnee mbir mi. Hmm. est-ce que nekkul ni yabu ca namu ca ku la ca. ba wax nga jël. Hmm. mooy am na message bu mu doon bëgg a jàllale. léegi mu gis benn lantinoor boo xam ne. mun na ko permettre mun ko jàlle pour message mun a jàll. Ah. mu jaarale ko foofu man tey ji mun naa comprendre Bougane noonu. Mm-hmm. Ah, loolu tax ma jàpp ni audio bi. Mm-hmm. bu dee di dafa fiite tamit naqadiwul Bougane. Mm-hmm. naqadiwul Bougane. bu dee dafa fiite naqadiwul. waaw ah, parce que Bougane aussi ni gars yi amee seen i yooyu. noonu la amee est-ce que sëñ Saliou bokkul ci tiktokeuram yooyu. wala ñooñ mi di ko defal communication. pour man euh, ànduñu ñoom ñaar non non non mën nañu sax ànd boo sëñ Saali muy wax mën na doon sax koo xam ne tey jii mën na Bougane xam na Bougane léegi mu jouer le jeu rek ci digganteem ak Bougane parce que comme Bougane woo na ko te bëggoon na message am jàll. damay analyser waxuma noo la demee. si léegi mu permettre ko mu jàll. pour que mu mën a lii parce que boo xoolee euh, bi mu jàlleeg léegi audio audio audio audio fité audio fité audio mais da ngay sentir ni. Euh, message la boo xam ne tey jii. Bougane bëggoon na mu jàll. waaw parce que message bi mu paaseel moom bëggoon na jàll parce que permettre na ko mu justifier position bi mu jëloon ni élection yi day xaar ba deuxième tour. léegi ne par rapport ak Cheikh Oumar Diagne. ak Jomaay Jomaay woowu ko. man déglu naa Cheikh Oumar Diagne. Euh, Cheikh Oumar Diagne dafa ne bi nekk en prison dañ doon travailler pour la coalition Jomaay. léegi Bougane waxul benn yoon ni Cheikh Oumar Diagne woowu ko. Jomaay la wax. waa dañuy jomaay woowu quoi. mais jomaay mun na nekk en prison Cheikh Omar ñoo bokk coalition bi Cheikh Omar doon wootee pour Bougane. pour jomaay pour jomaay. di ko coordonné lii parce que des fois saa mun na soxla kenn na la sooy wool ma ko. coordonné ma diw coordonné ma comme ni ñuy defee suñu émission bi nii rek. d'accord jii nit day bu ñëwee lan lay wax Omar Gueye moom invité. <coughs> waaw te mun na am na ko. si waaw te man bi ma dégloo Cheikh Omar Diagne Cheikh Omar Diagne moom ci boppam moo doon coordonné di woote. mais mun na woote au de la coalition Diomaye parce que am na sax ñoo xam ne tey jii woo nan ay nit yoo xam ne Diomaye sax santu leen ko mais bëggoon coalition bi am doole ñëpp jàpp ci ku ne nga xool wet ga nga ko mën a jàppee nga woo gis benn candidat wala nga gis benn parti politique boo xam nit jiite na ko. nga woo ko ne ko lii ñu ne bu ñu sañoon nga dugal ci sa loxo. pour que projet bi mun a egg. loolu tax Diomaye woowuñu woowu ma. ak coalition bi ñu ma du benn. d'accord parce que Diomaye mënul woo ñëpp. mais am na ñuy woote woote ci turu coalition bi aywa jaajëf Omar bun Xataab Gueye ma jigéen noo gisee kilifa yi nga xam ne léegi ku ñu waxal audio daañaar nga gis ko ci mbedd mi te muy lu ñaaw loo xam ni wax dëgg yàlla jaaduwul yow mii su ma la envoyé un gis ko ci mbedd ma dootuma la audio kon nag lii lu ñaaw la li ñu def bugaan waaw waaw yaa ko yónnee waaw waaw waaw mais bu fekkee yaa ko def ba pare nag tasaare ko ci mbedd bi moom ah. day day day day métti mm. mais information bi ma jot mooy que ne euh, Modou mi ngi ma koy wax léegi nee na audio bi euh, benn Serigne saaliwu influenceur bu nekk Touba. le Bougane koo xam ne daf doon defal communication Bougane. benn influenceur. waaw mu bu du pas Serigne Saliou Gueye. Euh, mais Touba la nekk tiktoker la moom moom la Bougane doon waxal. mais nee na Bougane euh, Serigne Saliou moo ko génne mais dafa am accordu Bougane. Hmm. Bougane moom moo ko ne na ko génne. kon confirmé voilà léegi moo tax euh, sànq bi ngay wax di ñadd maa ngi naan Bougane yow doo wax rek te bàyyi <laughs> ah, euh, tey bi muy wax Serigne Saliou nekko ko aw jot maa ngi lay woowaat bu fekkoon tey école la dinañ dañ lay ñii dañ lay defal résumé ñii defal ñii jox la dissertation résumé dañu naan la carrément dañ lay jox ab benn test texte boo xamante ne nii euh, cent mots moo ci nekk ñu ne la nga résumé ko ba mu nekk trente wala vingt cinq mots hmm. bu dee dissertation di def def euh, di nga def euh, euh, introduction développement ak conclusion mais Bougane mu ñëwee ne résumé lay def dafa dem def dissertation parce que tu pas ma tu peux pas m'envoyer un un pour ma diir que maa ngi lay vowaat aw ma jot te ojo bi nekk loo xamante ne ni lu kilométrique la daanaka romb na cinq minutes di dem ci cinq minutes yooyu noonu ci la profito wax wax bu nga xamante ne ni fa dëgg yàlla daf ma dafa ma daf ma bu ma ko déggee sax ak euh, alaaji mi ma ci doon defal ci suba mooy que ni. Hmm. ñii euh, affaire bi genre référendum la. Hmm. Euh, dafa nekk sénégalais yi ñoom ñoo voté xool ki nga xamante ne ni ci candidat yi moom moo gën a bañ Macky Sall ñu ñu ñu ñu ñu voteel ko. xam nga mm. wax jooju noonu peut-être moom bàyyiwu ci sax xel moom Bougane. Mm. bàyyiwu ci sax xel mais wax ju garaaw la parce que ay waxu mbañeel moom bu fekkee looloo tax sénégalais yi voté euh, dugg nañ ci loo xamante ne nii musiba naaru laay la leneen li mu ci euh, yokk mooy que ni daf doon. peut-être bañ a disperser li nga xamante ne ni moom moo di njabootam moo taxoon mu neutre mm. yow yow nga ne anti système nga bokk ku bokk anti système nga ni da ngay xeex li fi nekk élection yi ñëw nga am occasion wu mën a xeex anti système boobu fi nekkoon ba mu jaraloon da nga doon dem tibb tànk yow fu président bi dem nga topp ci ginnaawam ne lii du fi amee tey nga mën a taxaw di seetaan bàyyi sa njaboot ndax lan da ngay bañ ñu tasaaroo. Mm. te njaboot googu noonu amaan na peut-être soo leen waxoon ne man kat comme ni nga ñëwee woon fii jàkkaarloog ñoom Moustapha Diop ci penco ne leen carrément Ousmane sonk bu demul it candidat bu mu fii samp moom laay àndal. Mm. da ko waroon a dëggal. Mm-hmm. du ñu xam finalement lan la ñu bëgg Euh, daf lay rappeler tamit en 2019 élection yi nga xamante ne ni présidentielle yi fi amoon Ousmane Sonko demoon na waxtaan ak Bougane pour ànd ak moom. ñu ne ah, Khalifa Sall ak moom ñoo dem rangé wu ci ginnaaw Idi loolooy wane ni peut-être Idrissa Seck moom li muy nangu peut-être coalition bi jël réew mi tey ñoom duñ ko nangu. bu fekkee dañuy xaar à ce que yow soo faloo ma war a jox poste bi wala dama war a am lii dama war a am laa man foofu laa gëmee ne projet Pastef wala Ousmane Sonko li mu doon woote loolu moom mooy dëgg bu fekkoon. loolu mu doon demandé sama xel rek mënu ma ne wax ne euh, obligatoire la que ni moom loolu la bëgg. Mhm. Euh, que ni moo tax àndul ak président Ousmane ko mais na ko leer nii rek. Euh, nee na moom kenn mënatul ko génneti ci taarixu politique. mais dinañ toog ay jamono yoo xamante ne nii xaw ma dinañ fekke xaw ma duñu fekke mais dinañu toog di wax ne bu Bougane Gueye mi ne woon anti système lay xeex. Oh. jamono ji ñuy fiy jëlee anti système moom daa toogoon croiser les bras. Hmm. loolu moom musiba la. Ah. du way bu du way bu rafet. waaw mais dañ koo xeex. Hmm, hmm. Ah? dañ koo xeex kan lañu ñu xeex. moom ndax nee na buggul bokk si ñi am 1 pour cent. mais ah. au moins moom ñii ñi dem ba fexe même bu ñu amee zéro virgule six pour cent sax hmm. affaire bi euh, mën naa jàpp ni genre concours la woon kon moom teel na toog ndax ñoom ñoo débuté woon noo te moom daf leen wàcc ci ginnaaw ñoom ñu mën a dem ba ci urne yi ku fa dem fekk fa seen liste mu tege macha allah dinañ ci bu ci xaje ñëwaat Omar léegi aywa ah ayca du jaxat ñëwal xajal ko ci dina baax dina baax dina baax dina baax ayca léegi gis nga li xew léegi mm-hmm. ma jigéen indiwaat na. indiwaat na lu bees. Uh-huh. ma jigéen nee na dafa am benn tiktoker bu buggaan doon waxal. bi mu mm-hmm. paree daan ni ko mën nga koo génne. bugaan nag jàpp naa ne bu demee ba àgg ci loolu kon. léegi kon bàyyi na communication bi ci télé bi rajo bi. léegi bugaan ci audio lay communiqué. waaw foofu laa bëggoon waaw acca bu dee noonu la demee de kon bugaan léegi audio lay communiqué. voilà man foofu waxee noonu foofu laa bëggoon a ñëw. Mm. moom mi ngi am télém. waaw am na opportunité. toog ci télém wax di lu ko ci neex vraiment man ci pour man. Mm-hmm. muy dem di xool koo xam ne influenceur la mu jël ko jël ay audio jox ko ni ko tegal loolu moom d'accord ma hmm. kon ça veut dire que kon. ci wax ju sérieux. waaw ci wax ju sérieux joo xam ne war ngaa mën a toog sa ci sa télé. Hmm. boo su fekkee da nga sérieux xam àdduna te buugaan ñëpp xam nañ ko ci li nga xam ne moo di wax fulla ak fayda nee na hmm. voilà donc nga nga jël benn influenceur boo xam ne da ko am loo xam ne da nga koo jox ni ko lii ak lii ak lii wax ci. waxal lii nii ba pare ni ko aw ma jot. mais am na jot amul woon jot. daa amoon ay partenaire déglu ma yàlla nañ ci yàlla musal. déedéet mère wooy moom ba tey moom ngi foofu mais dafa am loo xam ne dafa ñaaw man bu ma doon moom damay dem ci sama tele du jël koo xam ne xale la rek influenceur la ma jël ko jox ko samay audio ni ko tegal mhm. man nag pour man tamit da doon xaar deuxième deuxième tour terrain bi da koo raw hmm. waa deuxième tour amul xam nga dañu woon damay toog rek neutre. waaw ba deuxième ah, tour. waaw non boo xam ne nee na bu ñu nee deuxième tour ku ñëw ki yor li méngoog suñu programme ñu ànd ak moom. moo ko gën a moo ko gën moo ko gën a téye moo ko gën a xam. Hmm. yàlla jox ko jubóog suñu borom. jubóog moom ca la mu joxe. Hmm. ñu jox ko ko. moom mu toog di wax lii. am na loo xam ne nit du ko xaar. macha allah vraiment. Hmm. am na solo alaaji ojo fiite de la Sénégalais yi bari di wax ba tiitre ko ci ay YouTube ak fu nekk ojo fuité li mm. bees li ci génnaat nag nee nañ ab tiktoker bu nekk ca Touba Mbacké la bëggaan doon audioonteel ni ko nag mën nga ko génne mu génne ko waaw. xam dama am benn waay bu bëgg doxaan benn femme benn xale bu jigéen. Mm. fité fité lu audio bi quoi daal di def ab audio ne benn copain pour mu partager ba ndaw si jot ko. Eh. ndaw si wax ko dara quoi. waaw. Ah. ndaw si romb ko romb ko mu romb ndaw ndaw si faale wu ko wax ko dara naa ko déggoo audio bi fuité temps yi <laughs> sama audio bi bi. xanaa bàyyi mooy ñàkk pexe de. loolu de mooy ñàkk pexe. xam nga. waaw xam nga li mu njëkk a wax ci kii bi bi mel rek Coupe d'Afrique ñuy dem Coupe d'Afrique ñu ne coupe bi la ñuy jëli. Hmm. yow bokkoo ci ñi qualifié. ngay xas ña dem ñu gañe leen da nga bokkoon ci comité yow qualifié woo pour dem coupe d'Afrique waaw ngay xas ñi éliminer waaw ngay xas naan ñi toog premier tour naa leen premier tour yi ngeen toog ak yooyu man waaye yéen man bu ma demoon it dafa xam nga te ba noppi wax ne man bu ma demoon ci premier toog yow boole nga sa bopp ne boo demoon sax ci 1 pour cent yi nga yi naan man ngay ah, bu ma demoon premier tour laay toog yow xalaatoo jël coupe ba <laughs> waaye yow nan yàlla musal na ma ci sero yow léegi yow yaa ngi xalaat ni boo demoon da ngay toog yow baaraam da ngay toog waxoo ne ah. bu ma demoon man damay jël mbir mi parce que bu fekkoon dañ laa kale kale boo xam ne da nga ne kale bi kat penalty bi ñu ma wax tiireel jaarut yoon liñ ma kiyal jaarut yoon lii lépp dañ koy def nag pour xeex ma dañu xam ne bu ma demoon da war a wax ne dañu xam ne bu ma demoon damay jël coupe bi. waaw waaye nga ne bu ma demoon ci 1 pour cent yooyu laay bokk. kon yow wax nga ni yow sa bopp sax yow ba tey gëmoo ni boo demoon da ngay gañe mm-hmm. xam nga loolu moom euh, mooy nga avouer publiquement ne élection yow mënoo ko gañe mm-hmm. yow loolu moom loolu la avouer quoi maanaam dafa nangu ni. mënutoon a gagné élection yi. d'accord parce que ñeem wax ne référendum pourquoi pas ñu voté loon ko moom. bu fekkoon bi ni mu gëmee parteem mhm. noonu waaw leneen li am nag ci wàll bi nga xamante ni moom nga expliqué ci audio yi nga xam ni moom nga wax noonu. Mhm. xam nga euh, euh, saltel victoire bi ngi dooree ci ñu ne euh, nit ñi dañoo voté rek c'est parce que dañoo mere. Macky Sall dañ ko. ki gën bañ Macky lañ watee ki gën a bañ Macky xam nga loolu baaxul quoi xam nga loolu daanaka xajamal euh, victoire la du question ki gën a bañ ki gën a am programme. ki gën a liggéey. convaincre nit ñi ci programme kooku lañ voté ki ñu gën a yaakaar mais nit ñi voté wuñu c'est parce que kii moo gën a bañ Macky. man defe naa ni bon bañ Macky amu fi quoi. Ah, moo tax audio bi nag tey bu fekkoon da koo joxoon technicien yi ne seen TV. ak rajo bi loolu dañ ah, koy dagg. mais parce que gën a bañ Macky gën a bañ Macky loolu baaxul ko hmm. parce que man bi ma jógee dem di voté ji ak yow ak keneen ak keneen bi ñu jógee di voté ji dañuy voté c'est parce que am na loo xam ne gis nañ ko bëgg nañ réew mi ñu yor ko beneen yorin boo xam ne yorin bu rafet la kan lañ gën a am yaakaar nit ñi noonu lañu voté hmm. donc nag boo waxee ne ki gën a bañ yi la loolu wax la joo xam ne ba léegi hmm. yaa ngi siisu quoi mi ngi mel ni rek li daloon booy bi ci wayu amadu Ba bi ne booy bi nee na bon vraiment pourtant way bi neexoon naa mais dama doon siisu rek waaye Amadou Ba Amadou Ba ah, léegi ba da koy quoi pourtant ma ne booy bi pourtant wax na dëgg ñu bari dañ doon siisu ah. mais ah, Amadou bi nit nit toog na ci ruq daan ne Amadou te Diop si nga xam ne du waykat moo ko moo ko génn waaw. Diop de booy ko kaajoo quoi. waaw booy ñëw naan Diop de noo def ba génne mbay boobu mu naan noo xam man Tivaouane laa dëkk. Eh. nii ak naa xam nga way wi Tivaouane laa ko fentee Amadou Ba mu ne te ñoom ñaar lañ ñoom dañoo am ñaar man ma am kenn sama kenn ki il faut ma xool nu ma koy woyee moo tax ma ne Amadou Ba. Eh. Amadou Ba te Diop de boole fu laa koy def Amadou Ah, Maodo. Eh, am na ah. Ah, am na Amadou Ba mandataire am. Eh, kon alaaji kon wi eh, audio bi fiite wut. non bi moom mosut a fiite. léegi kon lu ko génne kon kon mooy sababu génn bi loo xam ne. waaw non xam naa non non waaw non moom laa la wax léegi non xaaral damay ñëw kay léegi. Hmm. fiite wut ki indi na ab xabaar bu bees. léegi lan nga jàpp ni moom la jublu ci def ko envoyé ko ab tiktokeur. waa xam nga hmm. euh, boo seetee hmm. euh, man jàpp naa ni euh, kii nu mu tëdd Serigne Saliou seetaan naa ko mooy bi mu wax ne dafa Serigne Saliou Gueye bi mu wax ne raté na train de l'histoire waaw jàpp naa ni audio bi. ci tontu kooku la ak ku mel ni man mii. yow. <laughs> waaw daanaka dama ni ma déggee nga déggee. pour ma la ci naka ci naka ci naka ci naka. non boo dégloo xam ne tontu la. ma wax la leen c'est man Bougane Bougane boo jàpp naa ni li ma doon wax président Macky Sall laa ko jàpp naa ni bokk naa sax ci ñi ko gën a bëgg mais jàpp na ni xam naa ni ci ñi ko gën a contre laa bokk. moom jàpp na loolu mais man jàpp naa ni ci ñu ko gën a bëgg laa bokk parce que jàpp naa ni li ko sànq ba tax politique am ba léegi mu toll fii ñeneen ci rajoom boobu la te bu defoon élection la dal sëriñ buuba ko fay dal xam nga sëriñ buubu nee na ànd naag cinquante personnes te ba quinze si yaa ngi dégg dafa ñaaw duñ ko wax dëgg-dëgg mooy kan mm-hmm. maanaam fi ñu koy tam-tamal àgg gu fa maanaam yegg gu fa c'est mën na fa yegg nag maanaam man pour man temps bi mu def sax fi mu toll nii waroon na ko dépassé lu baree bare mm. waaw billaahi mënoon na ko dépassé mais c'est que du ko dépassé c'est parce que nit ñi dañ koo tegagum fu mu yeggugul mm-hmm. hmm. waaw maanaam politique du caagi ni rek gis nga loolu mooy li gis nga télé hmm. force la faiblesse la nga am sa télé di ci politique te faiblesse sax la gën a doon gis nga bu nit ñi di wax ci yow hmm. day permettre nit ñi sax duñ la gëm dañ naan teleem la ñuy yor dañ di politique di ci def seen kii ak di ci comprendre maanaam foofu nga war a gën a moytu da nga war a dem ñàkk ji ko feneen man defe naa ne sax am na benn moment comprendre na ni warta def sax plateau ci télé muy dem ci yeneen i télé di fa def ay plateau parce que boobu xam na ni di ko def ci télé baaxul dem na ba yëg loolu mhm. mais loolu dafa waroon a delluwaat encore bàyyi journaliste yi gis nga xam nga lan moo ko arrangé woon ay journaliste yu mel ni ay Serigne Saliou ñoo xamante ni bii mais dangay gis ñeneen ñoo xam ne bu ñuy wax da ngay yëg ni day mel ni dañ leen a commandé rek ñuy wax maanaam li ñuy wax da leen di wóor ne bu demoon ci beneen plateau duñ ko wax yooyu yëpp nag contre gi nga xam ne moom la ko nit ñi di contre d'accord maanaam nit ñi dañuy jàpp rek ne ñoo xam ne da leen dañoo nekk comme ay taalibe maanaam fu ñu war a tudd bugaan ñu tudd ko fa ko war a tudd ñu tudd ko boo nee Sonko bugaan nga de l'opposition de l'opposition waaw waaw ci koo xam ne kii musul jàll nga ne ko chef de l'opposition xam yooyu la comprendre nga mhm. c'est que yooyu nag la bugaan jël dégg man bu fu mu toll man su ma doon bugaan damay defaruwaat dëgg la mm-hmm. d'abord li njëkk mooy télé bi liggéey leen professionnellement. dëgg la ah, liggéey liggéeyuñu professionnel non non dañ bàyyi tagg yi quoi moom ah, day politique mu daa dee ñàkk waa am na. dama ne ña nga xamante ni bii tey am na ñoo xamante ni bii am na ñu fa rek ay ñoom Cheikh Oumar Talla. waaw am nañ seen liberté. quoi mais xam nga dafa am ci ay nit nit ñoo xam ni. du yaa leen koy wax sax mais bu ñu xamee ni kii rek pour wut loola neex ñooñ nag da nga leen di freiner. ne leen mbir mi du ay wut lu ma neex comprendre nga. Mhm. comporté wu leen normalement liggéey leen seen liggéey bu leen neexee sax bu ma defee ki critiquer leen ma. Mhm. bu boobaa day ngay gën a crédible li ñi dañ naan non mais kii vrai démocrate la. Mhm. comprendre nga si c'est que yooyu. mën na bu ko defoon. pour man bon wax dëgg fa yàlla. du moom moo ko créé tamit. parce que am na lu fa xewoon lu fa xewoon mu jëloon téléphone am. woote en direct di tontu loolu su fekkee say employé dañ ko dégg ñoom tamit dañuy moytu. ñu bàyyi la pour man côté boobu man mën nañ ko ci xaw a kii comprendre tuuti man élection mooy vote ak choix dafa libre quoi. mooy moom bu ko neexee bu ko neexee. waaw mu ne àndul ak ma sàmb. àndul ak dem taxu mu nër. loolu moom ku ne même bu jëloon position sax tey lay sooy. kon waru ko woon wax non ko defee baaxul. du baax non non non non c'est xam nga Omar. non non xam nga choix xam nga kam nit. mën na ko forcer mu am choix dinaa wax dinaa maanaam loolu làmbatu la. li mu def. làmbatu la. mais ça est-ce a obligé mu am choix fort fort. kañ moom dafa yor kii ñu ne ko yow la ñuy déglu. Hmm. moom moo ne ñun. gars yi moom la ñuy déglu waxoon na ko sax moom ci wal fajiri. yaa ngi dégg moom moo wax ne day tànn te nii lay tànnee. moo ko waxoon. yaa ngi dégg c'est dafa am yoo xam ni. Hmm. gis nga euh, ma wax la lenn. waaw doo gi nii. si Lamine daan na toog lu yàgg parensaay du génn ci télé bi xam nga lu tax du génn ci télé bi hmm. parce que critique yi ni parce que dañuy nit ñi dañuy wax ah moom télé sax lu jóg mu wax lu jóg mu wax comprendre nga. ba mujj gi muy tëbal yenn yi fii jamono ji nga moomee sa télé. nga gën a am problème ak télé bi. parce que nit ñi dañ naan ah léegi daan mu ngi gen ni lu mu waxati. moom nga télé rek la yor lu jóg mu wax lu jóg mu wax. comprendre ñu jàpp ni daa moom télé bi lu ko nekk voilà si ba do yow ci sa bopp boo def naa sax gaa yi lay ëpp liberté ci sa télé. waaw wax nga dëgg de. ñu li ci ëpp liberté ayca. yooyu mooy li nga xamante ni bi. kon ñu ngi noonu ay nit man leen gëm naa ne Bougane du mos a porter choix am. ci mhm. d' accord ah mais waxoon na ko pourtant moo ko wax. Hmm? moo toog fii non man man personnellement peut-être bu bu Sonko nekkoon candidat. waaw moom dama mën na mais Jomaay moom musuma su ma moom moom dina toog. def déclaration ni Jomaay laay soutenir. non Omar moom musuma xalaat. Omar dañ ko laaj fii ci wàllu fajiri ñu ni ko léegi ndax Ousmane Sonko su jiitalee kenn di nga topp ci ginnaaw mu ni su jiitalee koo xam ne day incarner euh, l' anti système. comme Jomaay ma ànd ak moom. pour taxaw na ko mais xam nga léegi loolu fan ban dëgg sërëx la fa kii woon. Hmm. maanaam euh, tëboon na affaire bi maanaam euh, defoon na ni Habib mën naa ñëw. waaw moo tax mu ne bu dee kuy incarné kuy incarné bu fekkoon ne Habib dafa ñëw danaan kii système la. du ñëw. Habib euh, Habib si d'accord. ay kon Adja mi noonu bu subaak jàmm nag ñu ñëw ci euh, DJ Boubsou am na benn vidéo buy defit tour ci réseaux sociaux yi bi ñu gëstoo ba ci biir it ndeke yoo li ñu jàpp ni Boubsoo ko waxu ko waaw internet nag moo demee noonu des fois ñu indi la loo xam ne dañuy jàpp ne yaa ko wax te waxoo ko waaye kon bu subaak jàmm incha allah ñu daal di ciy dikk. ñëwaat jërëjëf son yu am na solo loolu ñuy sargal ñi nga xam ne rek ñoom la àndaloon ci émission bi lée di ko di ñuy ñi nga xam ne rek ñoo nekk ci réalisation bi ku ci mel ni ki nga xam ne rek moom moo di El moo Mamadou Diouf ak Abdoulaye Top ak Lay jàll su ma noon ak ki nga xam ne rek moom moo di waa sama noonu la ak ki nga xam ne rek moom moo di Serigne Fallou Mbacké Serigne Fallou maa ngi ziar di leen ñaanal jàmm donc suba incha allah ajaratu bétti mbub si di dee calaw dina fi ñëw toog quant à moi je vous donne rendez-vous demain incha allah ci Nepad musical Boutique Solution ñoo leen doon may seen émission Taku